yaa ayuha annaasu ittaquu rabbakum alladi xalaqakum min nafsin waxida wa xalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kasiran wa nisaa wattaqu allaha alladi tasaaluuna bihi wal arxam inna allaha kaana alaykum raqiba yaa ayuha alladina amanu ittaqu allaha wa qulu qawlan sadida yuslix lak yuslix lakum acmaalakum wa yaxfir lakum dunuubakum wa man yutic illaha wa rasulahu faqad faaza fawzan azima amma bacd fa inna asdaqa alxadisi kitaabu llah wa xayra alhadyi hadyu muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa charra al umuuri muxdasatuha wa kulla muxdasatin bidaa wa kulla bidaatin dalaala wa kulla dalaalatin fi nnaar ayuha al ixwatu fi llah assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu gannaaw bu ñu jiitalee sant suñu boroom tabaraka wa taala di ko dimbandikoo di ñaan mu jéggal nu te musal nu ci sunu ayu bopp ak sunu ñaawtee fi jëf di julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ñaan yàlla dolli xéewal ak mucc ci moom gannaaw loolu maa ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi kilifa diine yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi di ilimaan yi ak jàngalekat yi ak mboolem ku fi yor baatu diine di jaarale ci ñoom nuyoo nag di ko jàllale ci kilifa yi fi nekk yépp ak waa dëkk bi yépp ak ñi nga xam ne dëkkuñu ci dëkk bi te wuy ci woote bi li ñu tax a daje mooy def ndigalu suñu borom tabaraka wa te mooy fàttalente laayente biir suñu boroom tabaraka wa taala wax ne wa fa inna zikra tanfau almuminin na ngay fàttali ndax fàttali dana jariñ ñi gëm yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne addiinu nasiha mu ne diine day lépp laayante biir la bunt bi ñu war a jëmale waxtaan wi tey mawdoo bi mooy sharxu maana kalimati laa ilaha illa allah wa bayaanu muqtadayaatiha wa nawaaqidiha maanaam leeral suñu kem kattan ci li nga xam ne kàddu gu màgg googu di laa ilaha illa allah ëmb na ko leeral itam lenn ci yi nga xam ne ku wax kàddu googu yooyu mbir day war a nekk ci yow ngir nga mën caa jariñu leeral itam lenn ci yi nga xam ne nag ku ko jëf walla nga wax ko wax kàddu googu duutu am njariñ ci yow ndax dafay firiku kon buntu waxtaan wi mi ngi jëm ci tawxiid wéetal suñu borom tabaraka wa taala boobu nga xam ne moom mooy cosaanul diine lépp lu ñuy def ci diine mi ngi soqikoo ci tawxiid wéetal suñu borom tabaraka wa taala moo tax mu doon loo xam ne jullit war na koy yittewoo bu baax ci di ko jàng ak di ko nafaraat ndax su wéree leneen lu ca tegu dana mën a wér waaye su wérul leneen lu ñëw itam duutu mën a wér dafa mel ne ab fondation ci ab tabax wala ay reen ci garab noonu la mel ci diine moo tax boroom xam-xam yi di wax ne doonte nit ñi bokk nañ ci di ko wax jullit ñëpp daje nañ ci di wax kaddu googu di laa ilaha illa allah waaye nag rawante nañu ci dëggal ko ak jëfe la nga xam ne moom la ëmb rawante goo xam ne gu sore la wax jooju cheikhul islam ibn taymi rahimahullah moo ko wax beneen boroom xam-xam di ibnul qayim rahimahullah wax ne falmuslimuuna kulluhum mustarikuuna fi idyaanihim bi shahaadati an laa ilaha illa allah wa tafaawutuhum fi macrifatihim bi madmuuni haadihi alshahaada wa qiyaamuhum bi xaqiha baatinan wa zaahira amrun laa yuxsiihi illa allahu taala mu ne jullit ñi day ñoom ñépp ñoo bokk di wax kàddu googu di laa ilaha illa waaye nee ni ñu rawaatee ci xam li mu ëmb ak ni ñu rawaatee ci taxaw ci àqam ci lu feeñ ak ci lu nëbbu nee rawaate la goo xam ne suñu boroom rekk moo xam ni mu toll loolu moo tax kon kàddu googu jullit bi di ko war di nafar toujours ngir muy gën a mën a taxaw ci àq ji nga xam ne moom la kàddu googu am tawxiid mooy cosaan li nga xam ne ci la diine yépp tege diine ju jóge ci suñu borom tabaraka wa taala mi ngi tegu ci tawxiid suñu borom tabaraka wa ci mboolem yonent yi mu yónni kenn ku ci nekk fa mu ab wooteem mooy woote ci tawxid boobu wéetal suñu borom tabaraka wa taala di ko nettali ci alquran tàmbale ci noox mu ne wala laqad arsalna nuuxan ila qawmihi fa qaala ya qawmi abudullaha ma lakum min ilahin gayru suratul mu ne yebal naa noox ci aw nitam la mu tàmbalee mooy yéen sama nit ñi sama bokk yi na ngeen jaamu yàlla te xam ne amuleen beneen buur bu yeyoo ngeen jaamu ko ku dul yàlla ubudullaha ma lakum min ilahin gayru mu dellu waxaat ci Huud salaam wa ilaa aadin aqaahum huuda qaala qawmi ibudu llaha ma lakum min ilahin gayru suratul araf mu ne yebal naa ci nit ñu ñuy tuddee aat yonent bu ñuy wax Huud lam leen wax mooy yéen sama bokk yi jaamu yàlla jaamu leen yàlla nag bu ñu ko waxee mooy wéetal leen yàlla ndax ak jaamu bu ca wéetal yàlla nekkul du tudd ak jaamu yàlla jaamu leen yàlla ndax kat amu leen beneen buur bu yeyoo ngeen jaamu ko bu dul suñu borom tabaraka wa mu waxaat ci saalix wa ila samuuda aqaahum saalixa qaala yaa qawmi ibudu llaha ma lakum min ilahin gayru mu ne yabal naa ci nit ñu ñuy wax tamuut seen mbokk mu ñuy wax saalex muy seenu yonant lam leen wax mooy yéen sama mbokk yi jaamu leen yàlla wéetal ko ndax kat amu leen beneen buur bu ngeen war a jaamu bu dul moom naka noonu la kàddu googu ñëwee ci làmmiñu Shuaybu ak Muusa ak Isa alayhimu salaatu wassalaam moo tax suñu boroom tënk ko ci benn aaya ne wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuuxi ilayhi annahu la ilaha mu ne mësumaa yabal benn yonent bu la jiitu yow Muhammad lu dul wax naa ko nekkoon na jot li ne amul benn buur bu yooyu jaamu ko bu dul man yàlla kon nag faabuduun nañ ma jaamu te wéetal ma ci jaamu googu suratul anbiya mu dellu waxaat ne wala xad baasna fi kulli ummatin rasula an yabudu llaha wajtanibu taaxut suratul nahl mu ne xeet wu nekk yebal ci ñoom ab yonent yonent ba lan lay wax jaamu leen yàlla wéetal ko te ngeen wattandiku nag jaamu leneen lu dul suñu borom tabaraka wa ñu gis ne kon tawxid mooy tàmbalikaayu woote yonent yépp kalima boobu di laa ilaha illa ci la nit ki di duggee ci diine moom lañuy bëgg ku ñëw ci àdduna moom lañuy bëgg mu njëkk dugg ci am noppam moo tax ñuy nodd ci noppu gone ngir bëgg kalimatu laa ilaha illa allah baatu boobu njëkk a dugg ci am noppam mooy li nga xam ne itam moo war a mujj itam ci nopp nit ki ak ciw làmmiñam loolu moo tax kuy toll ci génn àdduna ñuy bëgg ña nekk fa moom di wax kàddu googu di laa ilaha illallah ngir su ko yàlla defalee tawfiq mu mën koo wax mu mujj ci làmmiñam su ko waxul itam mu mujj ci noppam kon li nga xam ne moom lañ bëgg mu njëkk a dugg ci sa nopp mujj cee dugg kon loolu moo tënk sa dund bi yépp loolu lim lay xamal mooy wërta génn kàddu googu di laa ilaha illallah ca la mu digle ak la mu tere moom moo jiitu ci lépp loo xam ne war na suñu boroom waral na ko ci kaw doomu aadama yi la ci jiitu mooy ñu wéetal ko loolu moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam bi mu yabalee Muaz ibnu Jabal Yaman daf ne ko innaka taati qawman ahla kitaab fal yakun awalu ma tadcuuhum ilayhi ibadat waxda mu ne ko yaa ngi dem ci nit ñoo xam ne day ñu jàng lañu ñu daan nekk ci ay diine lañu la nga leen di njëkk a woo na doon jaamu suñu borom tabaraka wa moom rekk te duñ ko bokkale ak ci beneen riwaaya fad'uhum ila shahadati an la ilaha illa allah wa anni rasulullah sallallahu alayhi wa sallam na leen woo ci ñu seede ne amul benn buur bu yeyoo jaamu ku suñu borom tabaraka wa ñu seede ne man mii maay ndawul yàlla ba addis ba jeex mu doog caa teg nag suñu la wuyoo ci loolu nga xamal leen ne yàlla farataal na ci ñoom julli juróom suñu la ci wuyoo nga xamal ne yàlla farataal na ci ñoom azaka yu ñuy jël ci ñi woomal ci ñoom di ko delloo ci ñu ñàkk ci ñoom ba addis ba jeex yonent bi alayhi salaatu wasalaam dellu wax ne umirtu an uqaatila annaas atta yashhadu an la ilaha illa wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimu alsalata wa yu'tu zaka fa ida faalu dalika asamu minni dimaahum wa amwalahum illa bi xaqi alislam wa xisaabuhum ala allahi azza wa jal rawahu shiqaaq mu ne dañ maa digal ma xeexal nit ñi ba bañi nangoo seede ne yàlla rekk mooy buur bi yooyu ñu jaamu seede ne muhammad mooy ndawul yàlla ñu nangoo taxawal julli nangoo joxe asaka mu ne bu ñu defee loolu dey musal nañu ci man seen deret kenn waratu koo tuur seen alal kenn waratu koo jël lu dul ci àqi lislaam ñu def luy waral tuur deret walla jël alal mu ne nag seenu regle suñu borom tabaraka wa taala moo ko yor ñu jële ci saxaaba bu ñuy wax ubadatu bnu saabit radiyallahu anhu qaal sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqul man shahida an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa anna isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaaha ila maryam wa ruuxun minhu wa anna aljannata xaqun wa annaaru xaq adxalahu llahu aljannata ala ma kaana min alamal muttafaqun alayh saxaaba boobu mu ne dégg naa ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam mu ne ko seede ne amul benn buur bu yeyoo ñu jaamu ko ku dul yàlla seede ne muhammad mooy ndawul yàlla seydina isa jaamu bi yàlla la di ndawam di kàddoom goo xam ne moo ko sànni ci maryam di ruux gu bàyyi ko fi moom seede ne aljanna lu dëggu la safara itam lu dëggu la mu ne ku dëggal seede boobu day ba dajeeg sa boroom suñu boroom dana ko tabbal aljanna ak nu jëfam mën a toll ñu dellu jële ci abi hurayra radiyallahu anhu mu ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam da ko wax bis ne ko yaa aba hurayra idhab bi na'layya haatayni wa a'taahu na'layhi fa man laqiita min waraa'i haadha alxaa'it yashhadu an laa ilaha illa allah mustayqinan biha qalbuhu fa bashirhu biljanna axrajahu muslim abu hurayra radiallahu anhu nee na dafa am bis mu fekk yonente bi alayhi salaatu wasalaam fi barab mu jox ko ay dàllam ne ko ŋàbbal sama dàll yii ba ku la gis xam na ci man nga jóge koo dajeel ci gannaaw làkk bi mu doon koo xam ne nangu naa seede ne yàlla rekk mooy buur bi yeyoo ñu jaamu ko te am xolam wóolu loola waxu ko rek ci làmmiñam waaye da ci am yaqiin kookee na nga ko bégal ci aljanna abu hurayra dellu nettali ba tey jële ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa anni rasulullah laa yalqa allaha biha abdun gayra shaakin fa yuxjabu an il janna mu ne seede ne yàlla rek mooy buur bi yooyu ñu jaamu ko muy kalimatu laa ilaha illa allah seede ne man mii ndawul yàlla la mu ne benn jaam du dajeeg boroomam fekk mu fas kàddu googu amu ca dara lu muy sikki sakka ñuy doxa ci digganteem ak aljanna ñu jële ci Usmaan ibnu Affaan radiyallahu anhu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man maata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illa allah daxala aljanna rawahu muslim Usmaan ibnu Affaan jële ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu ne ku faatu te fekk jamono boobu xam na dëgg-dëgg laa ilaha illa allah kookee dana tabbi aljanna ci hadiis boo xam ne Muaaz ibn Jabal radiallahu anhu moo ko solo yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax ne ma min abdin yashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqan min qalbi illa xaramahu llahu ala annaar rawahu albuxaari wa muslim mu ne amul benn jaam boo xam ne dana seede ne yàlla rek mooy buur bi yeyoo ñu jaamu ko seede ne muhammad ab jaamama ndawama te loola dëggu ci xolam sidqan min qalbi nee na lu dul ne yàlla xaraamal na yaramam ci safar ci hadiis boo xam ne Utbaan ibnu Maalik radiyallahu anhu moo ko nettali jële ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu ne inna allaha harrama ala annaar man qaala laa ilaha illa allah yabtagi bi dalika wajha allah mu ne suñu boroom araamal na safara ci koo xam ne dafa wax laa ilaha illa allah te wax gam ko wax jëmmi suñu boroom tabaraka wa taala rek la cay sàkku nee na kooku suñu boroom araamal na ci moom shafa kon kàddu googu di kalimatu tawxid doon loo xam ne lu wayef la ci aw làmmiñ kalimatu laa ilaha illa allah waaye lu diis la fa suñu boroom tabaraka wa taala lu ëmb la itam maanaa moo xam ne yaatu na lool ndax lépp lu ñu digle ci lislaam baat boobu ëmb na ko lépp lu ñuy tere itam baat boobu ëmb na ko loolu moo tax nit ki buy dugg ci lislaam kàddu googu rek lañ koy wax loo te xam ngeen ne lislaam li ci nekk bari na lool waaye duñu fa nekk di lim ya ca des dañ naan ko rek waxal ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam su xasee wax lool rek ñu daal di koy considéré koo xam ne dugg na ci lislaam ab jullit la doonte gisaguñ sax mu julli waaye jël na engagement ci bi mu waxee loolu ci lépp loo xam ne lu ñu digle ci lislaam la dana def ndigal la te itam def ga ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam la koy royee kàddu gu gi ashadu an laa ilaha illa saxal ne yàlla rek moo yeyoo ñu ko ndax mooy buur bi bind mooy wërsëgal mooy dundal mooy rey moom rek mooy yooyu ñu jaamu ko mooy digle mooy tere waaye ndigalam yooyu ak tere yooyu itam nag fi ñu koy xamee mooy ci ki mu yónni moo tax ñu teg ci wa ashhadu anna muhammadan rasulullah muy baat boo xam ne nag dafa boole ñaar an nafiyu wal isbaat dàq ak saxal day am loo fa jële am loo fa indi kalimatu tawxid lan lay tekki mooy laa ilaha illa allah moom ngay gis yonente yi di wax naan yaa qawmi abudullaha waaye duñ ca yam maa lakum min ilahin gayru laa ilaha dàq lépp loo xam ne ak jaamu la ci kudul borom tabaraka wa taala waaye saxalal jaamu googu nag ne suñu borom tabaraka wa taala moom rek mooy ki ko yoyoo te duñ ko ci boole ak dara suñu borom leeral ko ci ab aaya wax ne wa man yakfur bi taaguut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al wusqa lan fisaama laha wa man yakfur bi taaxuut wa man yakfur bi taaxuut moo tolloog laa illa allah wa man yakfur bi taaxuut kon il faut nga njëkk a weddi lépp loo xam ne lu ñuy jaamu la setu yàlla da koy weddi bu ci am looy sikki sàkk da koy weddi bu wér taaxuut gannaaw ba nag wa yu'min billah nga gëm nag suñu borom tabaraka wa suñu borom nag ki def loolu day téye na ci buum bu dëgër boo xam ne du dagg mukk faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fistaama la kon fokk mu boolee ñaar yooyu dàq ak saxal dindi la fa wër nekk lépp doog faa def nag la fa war a ne boo gisee ñuy jiital dàq gi dafay am lu fay nekk ndax xoolu doomu aadama dafa xaw a nuroo ak suuf ci misaal xam ngeen suuf bu tawee boo jiyee ak boo jiwul ñax mi dana tàmbali daal di sax dana tàmbali moom daal di sax te kenn boo ko fa jiwuti dafay sax kon nag boo bëggee bëgg ñëwee nag bëgg faa ji ñax moomee fa sax da ko fay jëlee la nga fa ji nag doo a mën a joxe la nga ca soxla waaye boo fa bàyyee ñax ma ñu bokk fa nekk ñoom ñaar loolu la ñuy tuddee bokkaale mooy doomu aadama itam su xàmmee rek commencé naa am lu commencé dugg ci xolam li muy gis ak li muy dégg ak li mu fekk baax yooyu yëpp mu ngi sax ci biiru xolam nekk fa am ñax su demee nag ba war a gëm kalimatu laa ilaha illa allah suñu dindiwul loolee fa jiitu woon ci yoo xam ne dafa ko gis nit ñi di ko def mu jël ko ci ñoom wala muy aada ak i baax yu mu fekk wala yu mu dégg wala sax lu ñu ko jàngal te wérul suñu ko dindiwul lu may jifa rek kalimatu laa ilaha illa allah bi te dindiwuñu la fa war jiitu woon kaddu tawxid googu lam war a meññ du ko meññ ndax daf koy gàllankoor li nga xam ne di gàllankoore gàncax ga ba du màgg noonu la pas-pas yooyu dul pas-pasu tawxid di gàllankoore tawxid ba moom itam ba lam war a jëf du ko jëf moo tax borom bi jiital wa man yakfur bi taaxut taaxut mooy ñax ma da koy dindi ba mu set wa yu'min billah nga doog a gëm yàlla nag mu ne ku ko def téye nga ci buum gu dëgër moo tax suñ boroom tabaraka wa taala tawxid da koo misaal ci garab misaal ko ci gàncax loolu ñuy bay danañ ko yomba xam lool xam nañ ne tool boo wutee saw jiwu tànn ko jiwu yi da koy tànn mooy li ñuy wax du loo dégg rek gëm waaye li ñuy wax da nga tànn la ca wér yastamiuuna al qawla waaye fa yattabiuuna ahsana kalimaat yi bari na lool lu doomu aadama waxe kalima la kàddu la waaye borom bi daf ne kalimatan tayyibatan am na kalimatan xabiisa am na xabiisa kon nag da ngay kalima tayyiba yow mi bëgg a ji doone lu ñuy tudde gerte rek ma ji ko déedéet am na yu ñuy tudde gerte yoo xam ne da leen di tànn teg leen fee te pourtant ba tey tur gerte lañ yow waaye ay buuse lañ wala dañoo xar wala dañoo bën doo leen ji boo tànn ba am nag jiwu rafet muy kalimatan tayiba suñu boroom ne ka sajaratin tayiba waaw daraballaahu masalan kalimatan tayiba ka sajaratin tayiba kaddu gu teey goo xam ne mooy kalimatu laa ilaha illa nee na boo ko jiyee dafa mel ne nga ji garab goo xam ne moom it jiwu wa jiwu teey la asluha saabit cosaan la dafay daal di dëgër reen ya dañuy dëgër garab gi su baaxee su màggee reen yi dañuy dëgër ci biir suuf wa faruha fi sama waaye banqaas yi nag dañuy jëm kaw asamaan sëq lool naat lool waaye tuuti ukulaha kulla xiinin bi isni rabbiha jamono bu nekk nag muy joxe meññatam gis ngeen ñett yooyu nga xam ne moo composé garab tudd na reen ya tudd na banqaas ya xob ya nga xam ne mooy tax mu am ker waaye tudd na it meññat ma garab weesuwul ñett yi jullit itam noonu la mel war naa am reen yu dëgër mooy pas-pas saabit dafa war a dëgër waaye war naa am melokaanu bitti woo xam ne ku ko seen itam xam ne kii jullit la comme garab bi boo ko xoolee rek xob bi moo lay wax garabu lomu ndax noonu la mel garabu niim gi soo ko xoolee rek daal di xam ne niim la moo tax mu ne wa faruha fi sama mu ne tuuti uklaha kulla xiinin bi izni rabbiha mu ne nag jamono bu nekk nag muy meññ meññat ma ca jullit ba moo tolloog jikko yu rafet ya jullit bi bu pas-pas bi dëgëree melokaanu bitteem rafet ba ku ko séen kii ab jullit la waaye ko mos meññatamitam mooy jëflanteeg moom ba mos ay jikkoom danga xam ne kii meññat mu neex la meññ ndax kalimatan tayiba la ji moo tax mu meññi meññat mu neex loolu moo tax kon laa ilaha illallah boobu doon li nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala du nangu jënn jëf ci nit lu dul dafa fekk na dëggal na kàddu boobu suñu borom balaa fay jënd jëf day fekk na imaan dafa wér te imaan na muy wére mooy tawxid nekk fa ndax ngëm moom lu yaatu la lépp lu dugg ci sa xol rek loo gëm la waaye li dugg ci sa xol nag da koy war a seggaat ba tawxid dong des fa loolu lañu suñu boroom di jàngal ci fatihatul kitab fatiha boo gisee mu nekk ummul kitab mooy dafa ëmb lépp loo xam ne moo nekk ci alquran ndax alquran ñaar rek moo al imaanu wal istiqaama da ngay gëm tegu ci yoon bi inna alladina qaalu rabbuna allahu thumma istaqaamu fala xawfun alayhim wala hum yaxsanun ulaika ashabul janna xaalidina fiha jazaan bima kaanu yaamaluun ñaari baat la tudd rabbuna allah thumma istaqaamu moo taxoon ki ñëw ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam dama bëgg dénk dénk boo xam ne du ma ko laajate keneen dafa ne rek qul amantu billah summa staqim qul amantu billah summa staqim neel gëm naa yàlla rek te nga am listiqaama mooy te nga ne coow ci yoon wi daal di dem àjjana moom loolu rek a fay yóbboo mooy na nga am billet ba noppi nag dugg ci liy yóbboo waaw ñaar yooyu boo ci boo ci manqué rek bu dem boo ñëwee dugg te amoo billet danañ la wàcce waaye boo daggee billet te demoo itam nag billet ba du jariñ dara kon il faut nga boole rabbuna allahu mooy biee bi summa staqaamu rek mooy nga dem nag jaar ca yoon wa dem waaw rabbuna allahu ji moom la suñu borom tabaraka wa taala def ci njëlbeenu fatiha muy al iman alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi ddin ñetti aaya yooyu soo ko dëggalee te xam seen maana am nga iman ndax iman ci ñett lay tegu mooy ci alxobb da ngay bëgg yàlla arraja dangay yaakaar yàlla alxawf dangay ragal yàlla mbëggeel gi li koy firndeel mooy alhamdulilahi rabbil alamin soo ko waxee settantal li la yàlla defal ci xéewal te la ci ëpp sax koo xam wa in tauddu nicmatallahi la tuhsuha waaye li nga ci jot xam rek nga settantal ko ba ne alhamdulilahi rabbil alamin li muy tekki mooy bëgg yàlla ko arrahmaani rahim yaakaar nga yàlla ndax borom yërmande ji nga xam ne ñépp la ciy dugal fii ci àdduna ak borom yërmande ji nga xam ne nag daf koo jagleel ñi ko déggaloon ci àllaaxira wa kaana bil muminina rahima fii nag rahmaan la moom ñépp ay tàbbi ci biir maaliki yawmi diin nga ne ki moom bisub fay ba te bis booba yow faw da fa teew kon kooku war nga koo ragal moo tax ñetti aay yooyu su dajee rek boole nga bëgg nga yàlla yaakaar nga yàlla ragal nga yàlla léegi nag am nga iman waaye iman nag ci biiram ci lañuy ñuy segge tawxid ndax mën ngaa am iman te doo am tawxid wax na ko wa maa yuminu aksaruhum billah illa wa hum musrikuun wa maa yuminu aksaruhum billah illa wa hum musrikuun nee na li ëpp ci nit ñi du ñu gëm yàlla lu dul ne boole dañ ca leneen danañ gëm yàlla waaye danañ ca boole leneen mel rek nga ne woon li gën a bari ci ñiy bay li ci gën a bari soo fa demee da nga ko fekkum ñax lu bare baree bari dañuy dañuy bari leen ñax dañuy boye waaw am nañ gàncax waaye am nañu ñax itam waaw am nañu ñax itam wa maa yuminu aksaruhum billah illa wa hum moo tax borom bi nag andi ñaar yi nga xam ne mooy segg imaan boobu ba tawxid ba mu des ci ndax tawxid pour nga mën koo am ñaar rek la li nga soxla ci yàlla ak li yàlla soxla ci yow li nga soxla ci yàlla bu ko wut ci ku dul yàlla li yàlla soxla ci yaw it ko defal keneen ku dul yàlla li ci yow moom mooy nga jaamu ko moo tax nga ne ko iyaaka yow rek naabudu lay jaam loolu nga soxla ci man yow rek lay jaam loola soxla ci moom ndimbal ne ko wa iyaaka yow rek it nastain ci lay sàkkoo ndimbal kon nag boo jaamoo keneen ku dul yàlla kon li yàlla soxla woon ci yow yaa ngi koy jox keneen boo wutee ndimbal ci keneen pour lu yàlla li nga ne woon yàlla ci yaw rek laa koy wut yaa ngi koy wuti feneen kon amatoo tawxid tawxid moom ñaar rek la ñaari jéego yooyu rek la li yàlla soxla ci yow ak li nga soxla ci moom rek li nga soxla ci moom bu ko wut feneen ndax ci moom rek la ne moo ko moom li mu soxla ci yow itam bu ko jox keneen ndax moo ko moom iyaaka yow yàlla yow rek rek na'budu laay jàmm gis nga rek ji moo tax ñu jiital iyaaka ji ñu jàng naxu xam ne ñu xasr la ndax buñu na woon naabudu iyaaka wala naabuduka mooy danaa la jaamu mais man damaa jaamu keneen boole ci waaye ne soo dee iyaaka nag yow dong na lay jaamu wa iyaaka yow dong it nag nastainu ci lay sàkku ndimbal loolu boo ko waxee bu dee dëgg léegi am nga tawfiq borom bi nag ne kon nag duggal kon amal is ñaanal istiqaama kon nga ne ihdina siraat al mustaqim kon rabbuna allahu ji na foofu li ci des nag kon mooy summa staqaamu ci waaw moo tax nga ne kon ihdina siraatal mustaqim siraatal lazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala dallin su ko defee kon yoon waa ngoog euh, tawxid boobu mooy miftaaxul janna mooy caabib aljanna wax boobu ne mu nabbi daa am ku ko laajoon lool ne ko waaw alaysa laa ilaha illallah miftaaxul janna xanaa du laa ilaha illallah mooy caabi aljanna mu ne ko balaa ah kay walakin ma min miftaaxin illa lahu asnaan fa in jita bi miftaaxin lahu asnaan futixa lak wa illa lam yuftax lak mu ne ko nag waaw mooy caabi aljanna waaye caabi boo gis rek dafa am ay dents dafa am i bëñ yoo xam ne mooy tax mu mën a dugg ci séréer bi waaye boo andee caabi boo xam ne amul ay dents mu ne ko kenn du la ubbi loolu moo tax laa ilaha illallah itam nag du da boo ko waxee rek jeex na dafa ami sart dafa ami sart moo tax abu ayub al ansari radiallahu anhu nee na benn waaye dafa ñëw ci yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ko axbir nii bi amalin yudxiluni l janna dama bëgg nga xibaar ma jëf joo xam ne dafa may tax a dugg aljanna gis nga saxaaba yi ñoom seen yitte moo doon aljanna buñ ma saa gis yonent bi alayhi salaatu wasalaam wala ñu gis borom xam-xam lañu koy laaj mooy lu leen di jàppandal aljanna wuuteeg ñu bari léegi bu ñu gisee ko ñu yaakaari diine la ñu koy laaj mooy luy yëwénal seen adduna rek luy tax gudd fan luy tax am wërsëg luy tax a mucc loolu lañuy laaj waaye luy tax a dem aljanna moom ña ko see laaj ñu néew a néew yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko taabudullah la tusiku bihi shay'an da ko àjjana dañ ko bëgg a dem la jiitu mooy dangay jaamu yàlla te doo ko bokkaaleeg dara wa tuqimu salaa wa tu'ti zaka wa tasiru rahim mu ne ko ngay taxawal julli nag te ngay joxe asaka te ngay jokk ak bokk hadis boobu buxaari bi muslim solo nañ abi hurayra nettali moom itam ne am na beneen waaye bu wax yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ko dullani ala amalin ida amiltuhu daxaltul janna dama bëgg nga tegtal ma jëf joo xam ne su ma ko jëfee damay dugg aljanna mu ne ko taabudullaha la tusriku bihi shay'a wa tuqimu salata almaktuba wa tuaddi alzakata almafruda wa tasuumu ramadan mu ne ko da ngay jaamu yàlla te de bu ko bokkaaleeg dara ngay taxawal julli gi nga xam ne suñu borom da ko farataal ci jaam ni ngay joxe asaka ji mu farataal te ngay woor weeru ko waaja daal ne walladi nafsi bi yadi laa azidu ala hada shay'an waa ne maa ngi giñ ci yàlla mi nga xam ne sama bakkan mi ngi ci loxoom lii de man du ma ci yokk dara waaye wala anqusu minhu du ci wàññi dara itam fa qaala annabiyu sallallahu alayhi wa sallam man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli aljanna fal yanzur ila hada yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ku bëgg a gis waaju bokk ci waa aljanna na xool kee nga gis ne kon diine yu baree baree baree bare yu ñu cay dugal ci di ko jafeel ak di ko xatal loola bokku ca waaye wéetal suñu borom tabaraka wa taala ba noppi jaamu ko ci ni mu ko diglee loola rek euh, mooy diine kon addis yu baree bari ak ay aaya ñëw nañu du leeral ne kalimatu tawxid boobu di laa ilaha illallah dafay taxa dugg aljanna waaye nag dafa am ay tënk addis yi doon jàng da gis addis boo xam ne daf naan mustayqinan biha qalbu ku wax laa ilaha illallah te wóolu ko ci sa xol beneen bi ne ku wax laa ilaha illallah sidqan min qalbi te mu dëggu ci xolam beneen bi ne ku wax laa ilaha illallah yabtagi bi dalika wajha allah tam di ca sakku jëmmi suñu borom tabaraka wa taala kon yooyu ay tënk la yoo xam ne day tekki ne kon laa ilaha illallah ga wax ga balaa jariñ boroom day fekk nag mu matal euh, tënk yooyu boo gisee nag tawxiid wéetal suñu boroom tabaraka wa taala doomu aadama war cee taxaw mooy moo tax ñu bind ko te lenn lu nekk la tax ñu bind ko nu mu mënee loola noona la amee njariñ yëf yi ñuy jëfandikoo ci àdduna lenn lu ne daa am lu koy doyee li feeg mi ngi man liñ koy doy rek lu mu màggat màggat ba tey baax na waaye nag lu mu bees bees te mënul li tax ñu defar ko ba tey baaxul wante tër bi beesoon teg waaye nga taal teg ko dañ la yow jaayuñ la wante tër bu baax lañ lay wax baaxul waaye lu mu màggat màggat tey tàkk nag ba tey baax ndax li ñu koy doyee mi ngi koy man kon nag doomu aadama moom it war naa laaj boppam lu ñu koy doyee yàlla mi ko bind lu mu koy doyee ndax nee na afa xasibtum annama xalaqnaakum abasa da ngeen a jàpp ne dama leen bind rek di caaxaan du jubluwuma ci dara ah bind nit rek bàyyi noonu yéen doomu lu ngeen defar am na lu ngeen ci jublu boo defaree daal la solo boo defaree lal boo defaree kër dëkk tax waaye yàlla nag bind lu toll ne nit ak ni mel nga da ko bind rek sànni ah doyewu ko dara afa xasibtum annama xalaqnaakum abasa question boobu war nga laaj sa bopp lu ma yàllay yi man mii ak lu tax mu andi ma fi mu tontu la ne la wa maa xalaqatul jinna wal insa illa li yabudun la nga doon bëgg a yaakaar jàpp ne wërsëg la lay doyee mu jiitu la dina la maa uridu minhum min risq parce que ñu bari jàpp nañ ne wërsëg mën naa remplacer lu ne waaw même mën ngaa bañ a jaamu yàlla te yoon wërsëg di financer rek ya da ngay jàll comme ñëpp da ngay jàll comme ni mu mel ci àdduna rek daanaka bunt bu jafee boo xam ne doomu aadama yee ko yor moom boo indee alal rek da nga da dañ la ko ubbil ñu bari nag loolu la ñuy bëgg a jàpp ne ci yàlla yi noonu la demee rek waaw da ngay caaxaan nekk ci loola neex ba am alal daal ah mel na nag da ngay jéem a neexalaat yàlla ci alal jooju yaa ngay tabaxi jàkka yaa ngay yóbboo makka yaa ngay def leneen te alal ja kenn xamul noo ko amee la la waroon itam defoo ko woon jamono ba ngay wut alal ja moo tax mu la maa wa ma uridu an yut'imun inna allaha huwa razaq dhul quwwati almatin doyuma leen wërsëg de doyuma leen it ngeen di ma wutalu ñam ndax man yàlla maa leen wërsëgal wërsëg woowu ngay bàkkoo man yàlla maa la ko jox kon li ma lay doyee mooy nga jaamu wa ma xalaqtu l jinna illa li ya'budun moo tax jaam ñi ku ci gën a mat mooy ku gën a dëggal njaamu googu ku la gën a nekk jaam bi yàlla rek gën laa taxaw ci li njaam gi laaj kooku moo la gën a mat boo gisee yonent yi gën a mat yépp loolu la yonent bi alayhi salaatu wasalaam da ngay gis fu ko borom bi di tudd njaam googu la koy tuddee alhamdulillahi alladi anzala ala abdihi alkitab léewul ala rasulihi de parce que ala rasulihi bi moom garaat la buñ ko takkal waaye obodiya bi nag njaam gi nag mooy li mu taxawee moo tax ñu bind ko mu taxaw ci ba mu mat sëkk tabaraka alladi nazala alfurqana ala abdihi subhana alladi asra bi abdihi yonent yëpp mu ne wala xadd sabaxat kalimatuna li ibadina doog ne almursalin bi mu daataan tudd nubuwa gi risaala gi ibaadi ubudiya la njëkk a saxal wala xadd sabaxat kalimatuna li ibadina li ibadina almursalin kon jaam ñi ki ci gën a mat mooy ki gën a nekk jaamu suñu borom tabaraka wa waaye du ko gën a bari alal du ko gën am jëmm du ko gën a am daraja waaye ka gën a taxaw ci nekk jaamu borom bi tabaraka wa taala foofa la ak mat di nekk njaam googa nag nañ koy dëggale mooy wéetal suñu borom tabaraka wa taala bañ ko bokkaale ak dara ah, tawxid kon dafa am lu ñuy tudd ay muqtadayaat mooy yu mu laaj mooy ay surut ay sart yoo xam ne ku wax baat bi war ngaa remplir sart yooyu boroom xam-xam yi seet ko ci biir alquran ak sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam génne ko ba muy juróom-ñetti sart yoo xam ne ku wax laa ilaha illallah juróom-ñetti yooyu ah, war naa daje ci yow su ko defee wax gi nga wax laa ilaha illallah nekk loo xam ne lu dëggu la te itam lu lay mën a jariñ la ndax ñi wax kàddu gi bari na lool waaye ñi ci dëggu dañoo néew moo tax borom bi ne axasiba annaas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanuun wa laqad fatanna alladina min qablihim fa la yaclamanna allahu alladina sadaqu wa la yaclamanna alkadibin mu ne ndax nit ñi dañoo jàpp ne dañ di bàyyi rek ñu ne aman naa ñëpp ku ne ne gëm naa laa ilaha illa allah gëm naa te nee na duma leen fitnaal fitne jooju nag ca lay feeñe ñi dëggu ci seen ngëm dëgg dëgg dëgg ak ña nga xam ne dëgguwuñu ci mu xatte ci suratul baqara ba mu limee lan mooy ak mbaax walakin al birra man amana billahi wal yawmil axir ba aaya bay jeex daf ne wassaabirina fi lbasaai waddarraai wa xiina albas ulaika alladina sadaqu wa ulaika hum almuttaqun ñi mën a traversé ñett yooyu nee na albasa ak ñàkk mais bu ma leen tegeeg ñàkk ñu muñ du ñu ñànk seen ngëm du dem waddarra bu ma leen tegee feebar ñu muñ seen ngëm du dem duñ def lu yóbbu ngëm ñàkk ga boo demee di carte yaa xam ay PMI la yaa xam lu carte nga mën a tudd nga di ko def ngir bëgg am ngëm moom nekkatu fa ndax suñu borom ba muy tere carte yaa ayyuhal lazina aamanu la tàmbalee aaya ba woo ñi gëm yaa ayyuhal lazina aamanu ñu ne ah mu ne innamal xamru wa maysir wal ansaabu wal aslaam rijzun min amali shaytaan fajtanibuuhu la'allakum tuflihun yaa ayyuhal lazina aamanu la waxoon comme def na yéen ñi gëm yàlla def leen nangam nga ne gëm nga ba noppi ba defoo loola yow wala bëwoo loola kon bokkatoo ca woote ba waaw moo tax ka dem di carte wala muy jëfandikoo riba riba it gis nga yaa ayyuha allazina amanu ittaqullaha wazaru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin gis nga sart la ca yéen ñi gëm yàlla ragal leen yàlla te ngeen bàyyi riba ndeeg gëm ngeen yàlla aaya bi amulu la ko ubbee tëjewaat ko in kuntum mu'minin kon riba soo ko dee jëfandikoo di leble di ko intérêt loola bu boobaa di wute noonu alal bu boobaa euh, iman ba nekkatul loo xam ne euh, lu mat la loolu moo tax kon sart yooyu fokk mu daje ngir nit ki mën a dëggal laa ilaha illa muñ bu ko yàlla tegee ñàkk war dara muñ bu ko yàlla tegee feebar bu ko yàlla tegee feebar du fajoo nu da nu nu dëgganu la fajoo ndax du caa ngeen fajoo dagan na waaye du faj du faju mépp a dagan comme ni nga xamee ne du lépp a dagan a lekk du lépp a a naan am na lu dagan a lekk am lu araam a lekk waaye faju itam am na lu ca dagan am na lu ca xaram paj moo xam ne dafa yàq sa pas-pas ak bokkaale lay doon loolu jullit du ko faju wa xiinal baas mooy su tar-tar amee ñu di la fitnaal ngir sa ngëm yàlla bëgg laa génne bëgg nangu sa alal bëgg laa tëj kaso loola bu sa ngëm yàlla dëgëree du tax nga dellu gannaaw suñ borom nag ne ñett yii ki ko mën a romb bu ñàkkee ngëm yàllaam du yëngu bu feebaree ngëm yàllaam du yëngu buñ ko jàppee di ko fitnaal itam ngëm yàllaam du yëngu ulaayika allazina sadaqoo ñoo ñoo dëggu wa ulaayika humul muttaquun te nee na ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoo ragal suñu borom tabaraka wa kon sart bi jëkk ci sart laa ilaha illa allah mooy nga xam li muy tekki du kal kalima bu ñuy wax rek noonu da ngay a xam maanaam yi moo tax borom bi ne faalam annahu laa ilaha illa allah kalimatu laa ilaha illallah bi mu daataan rot ci alquran baatu ilmu moo ko jiitu faalam ndax su ñëwee te xam-xam nekku fa wax gi rek du jariñ il faut nga xam li mu ëmb xam nga nit man naa laaj ci ne waaw dañoo wax ne ashhadu an laa ilaha illallah mooy dugal nit ci lislaam xam nga mooy dugal nit ci lislaam waaw lu tax nag njëkku la wàcc ci alquran njëkku ndax mi ngi mel ne tey nga dee ab tabax xam nga liy faj naaj bi ak taw bi mooy xadd bi la tiim bu doon ab terrasse la coulage bi dal boobu mooy téye taw bi mooy téye naaj bi xam nga doon daanaka kon moo ci ëpp solo waaye lu tax duñ ci tàmbale doo tëb tëb rek di kuule fondation ci ngay tàmbale ndax dal bi il faut am lu ko yanu dal bi bu ko dara yanuwul fondation bi day woo dal bi rek yi ngay def ak yépp bi rek nga soxla waaye nag il faut am lu ko yanu gannaaw nag laa ilaha illallah moomin mooy yiir nit mooy musal nit ci safara mooy dal bi waaye nag il faut am kenn yu ko yanu kenn yu ko yanu lu muy doon xam-xam xam lu koy indi jàng moo tax mu tàmbalee ci boo ne iqra rek yaa ngi ges fondation yaa ngi ges fondation di jàng rek yaa ngi ges fondation soo demee ba am xam-xam nag mu ne la faalam annahu laa ilaha illa allah waaw ilmu mënta ñëw moom xam-xam te jàng jiitu ko jàngay indi xam-xam o dégg ñu naan dañ koo solog daa judduwaale xam-xam ak déedéet borom bi moo ne wallahu axrajakum min butooni ummahatikum laa taalamuuna shay'a loolu dafa leer maa leen génn ci seen biir yaay xamu leen dara wa jaala lakum sama wal absaara wal afida la allakum tashkurun ma defal leen nag jumtukaay yi ñuy xamee defal naa leen i bët defal leen i nopp bu ngeen demee xool dégg da ngeen xam waaye nag naa daal judduwaale xam-xam ba laa sey shay'an xamu leen dara dangay dem jàngi soo jàngee nag jàng moom mooy indi xam-xam xam-xam nag su ñëwee ci la laa ilaha illallah di tegu ke xam su waxee laa ilaha illallah xam li muy tekki dëgg boo gisee arab yi ci makka laa ilaha illallah di son ci ñoom lool bu dem boo doon léegi da daan naan waaw ñoom tey ñu war a wax laa ilaha illallah ba noppi ne ca lañ ne rek waaw comme ni ñu koy defee noonu day gis koo xam day ñëw ne laa ilaha illallah ba noppi mais day dem di sangu ci xàmba waaw yor nañ xam moom ci këram day sa laa ilaha illa taxu koo bàyyi sangu ci xam de ah te ndax jàpp ne jote wuñ dara da koo xamul moo tax daa xamul li muy tekki moo tax mais yéefari makka yi xamoon li muy tekki xam nañ ne bu ñu ko waxee këram du fanaan ci dëkk bi moo tax ñu ne ajaala al alihata ilahan wahida inna hada la shay'un ujab ñu ne kii li mu wax kenn mësu koo dégg moom nee na yàlla yëpp nañ ko fi jële benn yàlla rek am ñoom gis ne nañ comprendre baat bi dañuy ay arab moo waaw dañuy ay arab moo tax bi ñu ne laa ilaha illa allah rek kaddu gi rëy fi ñoom waaye ñun ñu dul ay arab nag dañ naan laa ilaha illallah du tee dem ñu dem suñu yoon la ñu nekkoon lépp ca la ñu nekk ba tey du tax ñu tekki dara du tax ñu dindi dara waaw li muy tekki mooy dañ ko comprendre dañ ko xamul waaye gis nga ña ko xam moom ñu ne ajaala al alihata ilahan wahida te booba ñetti téeméeri xelam ak juróom benn fukk mi ngi ci kaaba gi laa ilaha illa ñëw ne nañ mab lépp ñu ne ñoom loolu mënuñ koo dégg loolu daal moom kooku daal kéema la inna haasa la say un ojaab wantalaqa almarau minhu animsoo wasbiroo ala alihatikum inna haasa la say un yura maa sami'na bi haasa fi lmillati al ñu ne lii mësuñu ko dégg waaw bañ dalee dégg ba léegi mësuñu dégg kuy ñëw ne xërëm yi fi néewoon yépp nañ ko fi jëlee am na ñoo xam ne ba léegi noonu lañu waaroo ci yooyu de ñëw ñëwoon ci biir kër gi ne béjjén yeeg xaaw yeeg kóor yeeg njaq yeeg yépp nañ ko déjj ñu ne kenn mësu koo dégg waaw ca maam ya ba léegi yii ci lañ moo ci lañu ci la mi ngi ah mosuñu ko dégg te pourtant laa ilaha illa dafay jële yooyu de parce que wa man yakfur la wax wa man yakfur bi taaxut te yooyu yëpp taaxut la yooyu yëpp taaxut la wa man yakfur bi taaxut da ngay ruuj da ngay ruuj ba yooyu yëpp set nga doog a ji waaye boo jiwul boo boo ruujul ñëw sërxal ah toog rek ba asamaan seet bi rek nga ñëw di tracé ca geer baag ñax maag gajj baag yëpp ah sa sa sa tonnage de moom desu ko yëpp kon nag it faut nga ruuj ñu bari nag ruuj boobu lañ dëkku dañ naan gii daal fi la ko sama maam ba woon du ko dagg mukk waaw sama maam ba ko fi sama baay ba ko fi nga ne naa dagg geer gi déedéet boo ko daggul sa tool bi du baax il faut nga dagg ko xam woow wala njaq soosu wala béjjën boobu il faut nga dindi ko su fekkee bëgg ngaa jariñu ci laa ilaha illallah li feeg ma nga fa ñoom ñaar duñu fa mën a bokk nekk duñu fa mën a bokk nekk loolu la yéefari makka yi ñoom déggoon moo tax kon borom bi ne shahida allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim suñ borom ne moom moo njëkk a seede ne moom rek mooy buur gannaaw ba ku ko seede malaaka yi gannaaw ba ku ko seede borom xam-xam yi waaw yow doomu aadama nag foofu rek nga fi mën a am place ulul ilmi benn nga bokk ci ulul ilmi wala nga laaj ahlul ilmi waaw nga doon boroom xam-xam wala xamoo nga dem laaj fasalu ahla zikr in kuntum la taalamuun da ngay xam wala nga dem laaj ko xam rek waykat wax ne ko ne man ku xamul laajul ku xam xaw moo layam waaw boo xamul dangay laaj kon laa ilaha illallah fokk ñu xam maanaa mi mu ëmb moo tax yonente bi alayhi salatu wasalaam ci hadis bi Usmaan ibnu Affaan solo mu ne man maata wa huwa yaalam déggal yaalam la wax man maata wa huwa yaalamu annahu laa ilaha illa allah daxala al janna ku faatu te fekk na jamono bi muy faatu xam na dëgg-dëgg laa ilaha illa allah li muy tekki mooy su ko xamee rek dana taxaw ca àq ya parce que li ñuy tudde xam-xam dañuy wax ne mooy al ictiqaadu al jaazim al mutaabiqu lil waaqi mooy pas-pas bu dëgër ci dara amatoo ci looy sikki sàkka tem dëppoog la am loolooy tudd ilm al ictiqaadu al jaazim loolu mooy tudd xam-xam ndax mbir mi su doonee lii lii dig niim waaye yow nga koy sikki sàkka naan daal mën naa doonu niim kon yow loolu du xam-xam ci yow kon amoo ci xam-xam kon amoo ci xam-xam ndax ixtixaat jaasim bi moo fa nekkut il faut nga dogu ci man na décider nar cee denc ne liig niim la bu la doon rey nga rek niim la te fekk muy ak niim itam nag waaw loola boobaa nag mooy xam-xam mooy almutaabiqu lil waaqi waaye boo ca doon xarta rayu di ca rayu nag de ak niim la te du niim nag lu tax ba tey mu tudd xam-xam kon ñaar yooyu dañuy daje da koy gëm-gëm bu wóor ba noppi mu doon loola waaye su doonee loola te nga am ci looy sikki sàkka pour yow amoo xam-xam boo gisee naafiq yi naafiq yi li ñu wax iza jaaka al munafiquuna qaalu nashhadu innaka la rasulullah xam nga loolu ñu wax mooy li am waaye nag moom luñ manqué le i'tiqaad dañ koo gëmut moo tax borom bi ne wallahu yaalamu innaka la rasulu wallahu yashhad inna al munafiqina la kaasibuun pourtant li ñu wax dëgg la de kaddu gi ñu wax kaddu dëgg la mais suñ borom tuddi leen fenkat ah xoolal ndax lan kon lu ñu manqué le mooy li ñu wax dëgg la waaye ko koo gëmut nekk kon boo waxee dëgg goo gëmul ba tey da ngay fen waaw dëkk koo xam ne gëmoo ko dëkk la waaye yow gëmoo ko yow da ngay fen moo tax li ñu wax kay la moom la ñëpp wax isa jaakal munafiqun qaalu nashadu innaka la rasulullah kenn wax na la weesu loolu ah ñëpp loolu lañ wax bu ñëwee ne yonente bi kay anta rasulullah naafiq itam loolu lañ wax waaye nag gëmuñu ne mooy rasulullah dañ koo wax rek waaye gëmuñu ko moo tax mu ne innal munafiqina la kaasiboon ne leen yaquluuna bi alsinatihim maa laysa fi xulubihim li ñu wax ci seen làmmiñ yi lañ ko wax waaye nekkul ci biir xol yi loola moo tax nekkul xam-xam pour jóg kon fokk xam googu am xam itam nag ay degere la moo tax xam ba na ànd ak yaqiin xam ba na ànd ak yaqiin usuli yoon yi dañuy séddale xam euh, ñeenti xaaj ne su fekkente ne li nga ci xam ak li nga ci umpale ñooyam genn wàll gi nga xam loolu mooy tudd ak shakk loolu la ñuy tuddee nisful yaqin nisful yaqin waaw sàkk sikki sàkka maa ngi sikki sàkka daal mën naa am mën naa bañ am li nga ci xam ak li nga ci umpale ñoo tolloo li nga ci xam ak li nga ci umpale ñoo tolloo li nga xam ëppul li nga umpale ëppul loolu mooy sikk su demee ba nag li nga ci xam ëpp nag kooku mooy ak zann mooy njort moom lañ ne mooy trois quarts yi dëgg dëgg bi am nga trois quarts yi waaw su fekkente nag li nga ci umpalee ëpp nag kooku mooy wëxamu mooy defe mooy un quart dëgg un quart la ci dëgg robo robo ul lay tolloo kaaru dëgg nga am su fekk mooy defe-defe nangam nga ne dama koo defe mooy wax na defe lu feebal la defe lu feebal la la ca toppaat mooy sikk ba ca gën a dëgër mooy rànn njort njort kooku moom am na trois quarts dëgg benn quart rek ko manqué waaye boobu foo kawee loolu borom bi de wa inna zanna laa yughni min al haqqi shay'an yow mi ba am trois quarts yi itam nee du la jariñ dara bu fekkee amoo yëpp boo yàqin bi yaqin bi nag mooy nga boole lépp moo tax mu ne kallaa law taalamuuna ilmal a ilmal yaqin mooy xam-xam bi nga xam ne yaqin la nekkatul defe nekkatul sikk nekkatul njort waaye yaqiin la daf la wóor ba bu ñëpp bawoon yow nga def fa waaw parce que yee boo ca toll bu nit ñi baaree nga ba ki defe bu ñu nit ñi ne du noonu kay bu daa amoon kay dama ko defe woon rek kii si ki sakka itam noonu ki jortu itam noonu waaye ki am yaqin nag moom kooku bu ñëpp bàyyi mu des fa xam ne ñee ñoo xamul rek waaye lii la moo tax nag yaqin boobu moom la jaam bi war a am ci laa ilaha illallah jooju jooju mu wóolu ne yàlla rek kay buur bi yooyu ñu jàmm lépp luy njariñ ci moom la mën a jóge lépp luy lor su amee coobareem la moo ca ànd ndax ba mu waxee jibar yi ne dañuy lor daf ne wa maa hum bi darrina bihi min ahadin illa bi idnillah waaw amul dara luy lor ci kaw suuf lu dul ne dafa soob suñu borom tabaraka wa taala kon boo bëggee mujj ci luy lore làqul ci moom boo bëggee jëkk ci luy jariñ itam wuti ko ci moom waaye saa boo demee nag bañ naata la la leneen luñ la wax ne mën naa jariñ te bàyyi ko ci yàlla ba nga nangu ko wut foofa wala luñ ne la mën naa dàq lor ba nga nangu faa wut lu lay dàqal lor te loolu moo indi ak njibar ak caaxaan yi yépp looloo ko indi foo fekk koy def njariñ la lu mu bëgg xëcc wala lor ju mu bëgg a dàq rek loolu moom doomu adama lu muy def lu ne génnul loolu njariñ lu muy xëcc wala lor ju muy dàq soo gëmoon ne nag njariñ ci borom bi tabaaraka wa taala rek la mën a jóge lor itam moom rek mooy ki ko mën a dàq kooku nag boobaa kon ci la sa wa iyyaka nasta'in di dëggoo ci moom ngay wéeru dëgg dëgg dëgg boo gisee ibrahim alayhi salaam suñ boroom def ko muy njiital ñu am tawxid baat yi mu wax sax bu mu dikkee fekk baayam ak i bokkam ñuy jaamu xiram xam nga ñu bare bare bare bari ci nun li ñuy dugal ci mbir mooy dañ koo fekk baax mais Ibrahima loolu la fekk baax Ibrahima jaamu xiram la fekk ay mbokkam di ko def moo tax mu ne ko watlu alayhim naba ak Ibrahim jàngalal nit ñi xibaaru Ibrahim is qaala li abihi wa qawmihi ma taabudu Ibrahima bi mu xàmmee dafa wax baayam ak i mbokkam waaye yéen lii ngeen di jaamulu qaalu naabudu asnaaman fa nazallu laha aakifin ñu ne ko ñun de la ñuy jaamu yoo xam ne buñ fi jóg fi la nuy bu ñu amee soxla ñoom lañ koy ñaan Ibrahima xam ne bokkaale foo ko fekk xel moo doxatul xam nga yàlla doomu aadama da ko defal xel moo xam ne moo koy niital mooy làmp bi lay niital te bokkaale tàbbi ci kàmb la kii tàbbi ci kàmb nag li muy tekki mooy làmpam daa takkatu moo tax Ibrahima bëgg a tàll làmp bi ne leen waaw hal yasma'unakum istad'um waaw dama leen di laaj contre ma sax contre gu ma sax seen yooyu waaye dama leen di ñaan ndax ku leen woo dinañ ko dégg aw yan fa awnakum aw yadurruun wala ndax mën nañoo jariñ wala ndax mën nañoo lor ñu ne ko daal ñun daal bal wajat naa abaana kazalika yafaluun ñun daal jéemunoo seet gis nga bokkaalekat du jëfandikoo am xelam danaan la lii daal boo ne ko woon sa béjjën bii nga wékk est ce que dana jariñ dara mu ne man daal xawma waaye man sama bàyyi ma ko fi bàyyi loon wala sama maam wala diw sànga moo ma ko jox te borom xam-xam la waaw seetluuma nag man ma ko jox koy def xaaloo bal wajadna aba ana kasalika yafaluun ñun daal nii lañ fekkee woon suñuy bàyyi suñuy maam di ko def ibrahima ne afara aytum maa kuntum taabuduuna antum wa abaukum al aqdamuun fa innahum aduwun lii illa rabbal alamin maa ngi leen di yëgal ne lii ngeen di jaamu yéen ak seen bàyyi ak seen maam yu yàggee yépp déclaré naa ko guerre sama noonu ku dul borom bi tabaraka wa taala bi ma bind allati xalaqanii fa huwa yahdin yàlla mi ma bind moo ma war a wax fu may jaar muy alhidaaya mu teg ci ne wala si yutimu nii wa gis nga wërsëg a ngoog yàlla moomu moo may jox lu ma lekk moo may jox lu ma naan ndax wërsëg loo am rek desu lekk ak naan la cosaanul wërsëg moom mooy loo lekk ak loo naan moo tax mu ne yutimu nii wa mu ne wa ida maritu fa huwa su ma feebaree yàlla may faj gis nga kon du faju ji feneen ci loo xam ne neexul yàlla wala si yu maytu nii summa yii yàlla moo may dundal moo may rey kon fan wu gudd ak fan wu gàtt fan wu gudd du ma ko yaakaar ne kenn mën na ma koo may du ma ragal kenn it defe ne mën naa gàttal sama fan ndax damay gëm day sama dund ak sama dee moom yàllaa ko yor wallazi atmaw an yaxfira lii xati'ati yawma diin moom dongit laa yaakaar mu jéggal ma samay bakkaar yowmal xiyaam dama am nit koo xam ne fii danaan loo am jox ma suñ demee yowmal xiyaam ma far say bakkaar Ibrahima nee na d'accord ma ci loolu yàlla dong laa gëm ne mooy far samay bakkaar wa man yaxfiru zunuba illa allah ah ana kan moo mën a far bakkaar moo tax mu ne wallazi atmaw an yaxfira lii xati'ati yawma diin juróom yii bi mu ko matalee la ko borom bi imaamul muwahidin juróom alhidaaya muy ak njub bu ko sàkku ci kudul yàlla ar risq wërsëg bu ko wut kudul yàlla ashifa muy soopee bëgg a wér bu ko wut ci kudul yàlla alxayaa muy bëgg a dund bu ko wut ci kudul yàlla xufraanu zuróom yowal xiyaama bu ko wut ci kudul yàlla juróom yi la ibrahima boole foofu illa rabbal alamin allati xalaqanii kon fa huwa yahdiin wallati yut'imunii wa yasqiin wa ida maridtu fa huwa yasfiin wallati yumiitunii summa yuxyiin wallati asmau an yaxfira li xatiati yawma ddin waaw yii daal boo ko tëjee rek bokkaale dut la jaar fenn waaw bu fekkee lu la waaye wax bëgg la ko tegtal ci diine nga ne ko ana dalil ba waaw boo juleetee wirdal lii rëddal lii tombal fii nga ne ko liggéey wax fa ko yonente bi wax waaw ah yàlla yónni wu la ci man yàlla yoon yonente bi la yónni danga may mën a jottee lam wax bu fekkee nag lii waxu ko yow yàlla yónni wu la ci man te man seet la yónni loolu taw julit da cee war a bopp borom bi moo ne qul haatu burhanakum in kuntum sadiqin loola waaye wax nee ko preuve bi andil preuve bi waaw ndax même yàlla sax nekk gim nekk buur dafa andi ay preuve am teg këful nguur gi rek ne man maay buur dem déedéet dafa andi ay layam teg waaw dafa layal nguur gi am man xalaqa samawati wal arda wa anzala min as-samaa'i maa'an ki nga xam ne moo bind asamaan ak suuf saxal gàncax gi wàcce taw bi mu ne ndax gis ngeen ku man lool ah, am man jaala al arda xaraaran wa jaala xilaalaha anhaaran wa jaala laha rawaasiya wa jaala bayna albahrayni haajisan a ilahun ma allah yàlla dafa sëmb na nëb bal aksaruhum laa yaalamuun ne man yàlla di lii laa def ah li man yàlla di laa def fa arooni maata xalaqa alladina min dooni fa arooni wan leen ma ñi dul man lañ def man man lii laa def ah ah yàlla ne man bu amee keneen koo xam ne moom it wan ngeen ma mu def lu mel na li ma def boole leen maag moom jàmm am man yujibul muttarra ida daa wa yaksifu suu wa yaj'alukum xulafa al ard a ilahun ma allah qalilan ma tadakkarun am man yahdikum fi zulumati al barri wal bahri wa man yursilu riyaha busran bayna yaday rahmati a ilahun ma allah taala allahu amma yushrikun am man yabda'u al xalqa summa yu'idu wa man yarzuqukum min as-samaa'i wal ard a ilahun ma allah mu ne qul haatoo burhanakum in kuntum sadiqin bu ngeen waxee dëgg ne beneen yàlla am na fi andi leen seen protect moo tax lu la waay bëgg a andil lu la waay bëgg a andil ci ay lay borom bi tabaarak doom doomu aadama daf koo terale jox kom xel moo tax gis nga ña dugg safara ëllëg wal iyaasu billah wax law kunna nasma'u aw naaxilu kon tey maa kunna fi ashabi sa'ir dëggal ñu ne bu fekkoonte ne nangu woon nanoo dégg ba nekkee adduna wala nu amum xel xellu kon tey duñ dugg safara law kunna nasma'u aw naaqilu maa kunna fi ashabi sa'ir borom bi ne fa'tarafu bi zanbihim fa safqan li ashabi sa'ir borom bi ne reconnaître nañ seen bàkkaar ñoo ko waxal seen bopp de law kunna nasma'u aw naqil aw naqil parce que am na yoo xam ne xel fekkewu ko da ngaa éliminer sam xel rek moo tax ñi la bëgg ñi la bëgg a réeral ci foofu dañ la wax nañ yii nag bul xalaat bul laaj waaw boo ko defee rek da ngay al bul laaj te yes aloo naka jeex du jeex ci alxuraan léegi yonente bi lañ doon laaj yes aloo naka yes aloo naka ñaata la ñëw ci alxuraan comme yonente bi lañ ñuy laaj an kan moo jomb ñu laaj ko lu fi waaye def buñ ko xamul dañ la koy laaj waaye ñu ne boo ko ko laajee al ko ah waaye xanaa kon ñu doon laaj yonente bi dañuy al ko ah yasalunaka anil yataama yasalunaka anil ahilla yasalunaka ma sa yunfiqun yasalunaka anil anfal waaw yooyu yëpp ndax ña ko doon laaj al ko rek te fu mu fu ñu laajee day tontu ndax moom daa am tontu kon ku amul tontu mooy bañ ku ko laaj waaw waaye ki am tontu moom du bañ ku ko laaj kon diine te suñu borom sax moo digal laaj fas alo fas alo kay ndigal la fas alo ahla zikr waaye ñu ne boo laajee ñu ne da diingat yow da nga koy diingat da ngaa kontal ah, ah déedéet bëgg a xam rek la. <laughs> waaw kon kay xëy na lu ñuy xam lee fa nekkul rek waaw ah, kon yaqin am yartaabo tuma lam yartaabo ñi gëm yàlla ak yonent te amuñ lu ñuy sikki sàkka suñu amee lu ñuy sikki sàkka rek yaqin nekku fa wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika hum as-sadiqun suratul hujurat ulaika hum as-sadiqun kon sadiqoon bi bala nga caa mën a bokk ñu dëggu summa lam yartaabu bi day am bul am looy sikki sàkka ci gëm yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga moo tax naafiq yi euh, bu xaree masaa am jihaad naafiq lu ne mën na ci raaxaloo rek ba mu des jihaad parce moom bakkan da cay des moom boo ci raaxaloo ba jàkk ci sa bakkan mën nay raaxaloo ci jàkka ji di julliwaale doonte du ca sawar nag wa iza qaamu ila salaa qaamu kusaala waaye julli yàggu daan julli yàggu rek naa raaxaloo ci gaañu parce que bu ma julliwul ñu turóo ma waaw bu koor ñëwee yàlla xam waaye dana déclaré koor kenn xamul nag war waaye nag jihaad bu ñëwee nag ci la ñuy tàggoo moo tax ma ne innama yastazinuka alladina laa yuminuuna billahi wal yawmil axir war taabat qulubuhum dégg war taabat war taabat qulubuhum seen xol day sikki sàkk fahum fii raybihim yataraddadun seen sikki sàkk gi moo tax ñuy def taraddud teemaa dem ak ma dem kon ñàkk guñ ñàkk yaqiin moo tax ñu daan tàggoo ci bañ a dem jihaad ndax imaan bu dëggu mooy tax nga mën a supporter coono yi nga xam ne daf lay fekk ci ngëm yàlla gi te coono yi ba ci gën a mat bokk na ca jihaad boobu ñetteelu sart ba nag mooy alxabool mooy nga nangu ko nangu laa ilaha illallah xam nga nit da nga dem sax ba xam ne lii mooy dëgg waaye neexu la waaw nga naan dëgg dëgg bu ay la yéwén daal mooy li naan ay la yéwén daal ah ay la yéwén kon ku yebu nangu rek gannaaw yàlla moom nee na moo fi ne ku yebu rek jaamu ko waaw <laughs> xam nga loolu loolu kon waaye d'accord ci na loola booba tax jaamu nga loolu moom du tax jaam nga jàpp ne daal comme moonu ëpp doole daal moonu bind te daf nu yooyu te ma nga tegu safaram ah nan jaamu rek ndax nu mucc waaw waaye <laughs> amunu rek loolu moom du baax kon il faut da ngay war a nangu moom la naan innahum kaanu isa qiila lahum laa ilaha illa allah yastakbiruun wa yaquluun a inna la taariku alihatina li shaa'irin majnun am na ñoo xam ne foo tudde laa ilaha rek ñu rëy rëy waaw foo leeral laa ilaha illa allah rek ñu mer ne yow diw ngay xeeb diw nga bëgg wàcce dara jàmm wa ida sukira allahu waxdahu iz maazzat qulubu alladina laa yuminuuna bil axira wa ida zukira alladina min dunihi ida hum yastabsiruun gis nga nee na foo tuddee yàlla kese fi ngay xam ne nit ñi tawxid mooy su tuddee yàlla kese kese kese ñi nga xam ne moom dañuy bëgg ca loola ñooñe moom tawxid a ngi seen biir xol waaye ka nga xam ne leneen a nga ca biir xol ba xar kanam ba day naqari waaw daan bii waxtaan daal man su ma ko xamoon nii lay demee du ma fi ñëw waaw ñii dañ ma fi woo ci ñoo xam ne dañuy contre nit ñi di wax nangam nangam bu ma nee fabi dàllam sax fab ko def isma as waaye wa isa sukkira lazina min dunihi nag hmm. nee na soo commencé tudd leneen lu dul yàlla nag isa hum yastabsiruun ñu ne waajaa ngi doog a ñëw nag waxtaan waa ngi doog a waaw waxtaan booba léegi waxu fi dara waaye mi ngi mi ngi doog a neex <laughs> waaw kooku kooku kon tawxid moo fa nekkut kooku kon mooy bu déclaré tawxid ci nanguwu ko nangulul yàlla nangulu ko tawxid bi moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam misaal xooli doomu aadama yi ni ñuy nangoo tawxid ak ni koy bañ a nangoo mu misaal ko ci suuf mu ne masalu ma baasani bihi llahu min alhuda wal ilmi ka masali alxays alkasir asaaba ardan fa kaanat minha fa kaana minha naqiyatan qabilat alma fa anbatat alkalaa walusba alkasir wa kaanat minha ajadib amsakat alma fa nafa allahu biha annas fa sharibu wa saqu wa zarau wa asaaba minha taifa oxra innama hiya qiiaan la tumsiku maan wala tunbitu kalaan fa dalika masalu man faquha fi diinillah wa nafaahu ma baasani llahu bi fa alima wa allama wa masalu man lam yarfa bi dalika rasan wa lam yaqbal huda allah alladi ursiltu bi muttafaqun alayh yonente bi alayhi salatu wasalaam ne misaalum lii ma andi ci ak njub ak xam-xam nee na dafa mel ne taw boo xam ne dafa wàcc xam ngeen taw bi bu wàccee nee na ñetti xeeti suuf la fi fekk fekk na fi suuf su nooy su doon beeñ soo xam ne moom day accueillir taw bi naan ko saxal gàncax gi waaw kooku mooy xol yu nooy yi nga xam ne suñu déggee alquran dégg sunna yonente bi alayhi salatu wasalaam day dugg ci seen biir xol saxal ay jëf waaw ñu dal koy jëfe bu ko xol bi naanee cër yi jëfe ko ci biti jërëjëf ñaareel ba mu ne seneen suuf soo xam ne su kekkee la soo xam ne su ñëwee dana téye ndox mi waaye du ko naan xam nga loolu mooy dégg yi fii xam nga dégg yi bu ñëwee day téye ndox mi waaye du ko naan nee na ku bëgg nag mën ngaa ñëw naan ca wëgg sa jur ah def ca la nga bëgg a def mooy waa ji nga xam ne bi mu ñëwee xam-xam bi ñëwee jàng na ko ba xam ko waaye nag moom jëfewu ko gëmu ko ku ñëw nag mën ngaa jàng ci moom mën na laa nga dem waaye moom jëriñoowu ko moom ñetteel ba nag mu ne suuf su kekke su rotax soo xam ne moom su ko ndox mi laal rek day balaste ko dem moom moom du ko téye te itam du ko du ko naan du ko naan du ko téye nee na mooy ki nga xam ne bi mu déggee njubug suñu borom tabaraka wa taala ko waaw lam yarfa bi dalika rasan jéemu la xam luy alquran jéemu la xam luy sunna soo xam la yooyu intéressé wu ma yooyu sama yenn ko ci waaw yooyu ñett ñooñu moo am ki nga xam ne moom da koy dégg gëm ko jëfe ko ki nga xam ne jàng na ko xam ko waaye jëfewu ko ak ki nga xam ne moom sax moom du ko jàng du ko jëfe far waaw lu bu ko rombee day jàll rek kooku mooy nafiq loolu benn borom xam-xam misaale na ko ñetti aaya yi ñëw ci ñetti groupe yi ñëw ci suratul baqara xam nga ne alxuraan bi mu tàmbalee suratul baqara rek la qualifié nit ñi ci ñetti ñetti catégorie benn bi mu misaale ko ab gambo xam nga ab gambo mooy boo xam ne dañ ko ubbi xam ne loo ci def ci ndox mu mën caane mooy alladina yuminuuna bil xaybi wa yuqimuuna alsalaa wa mimma razaqnaahum yunfiquun walladina yuminuuna bima unzila ma unzila min qablik wa bil axirati hum min rabbihim wa ulaika humul muflixun ñoo ñooy gëm nañu yàlla ña ngay julli gëm nañu alxuraan gëm nañu li borom bi tabaraka wa taala wàcce ñooñu dañuy taxe ab gàmb la loo ca def mu des ca ku nañu ñaareel ba nag mooy ab tëlëj mooy boo xam ne mu ubbikuwul fenn dafa ubbikuwul mooy inna lazina kafaru ja sawaun alayhim a anzartahum am lam tunzirhum laa yu'minun tëlëj la ubbikuwul fenn waaw loo sotti mu wal jàng mooy yéefar bi waaw am naa ki nga xam ne daa ubbiku waaye daa ubbiku ci ñaari côté yépp nag day dugg day sar mooy naafiq ba wa a naasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil axir wa ma hum bi muminin nee na amana waaye wa ma hum bi muminin ba mu ne amana dugg na wa ma hum bi muminin génn na waaw waaw waaw moom ubbi fii da ngay sol fii mu génn fële gis nga ñetti kuréel yooyu la daal di tudd ci suratul baqara ñoo am li ci des yëpp nag ñoom lay détaillé muminuun kaafiruun mu jeex muminuun yi ña nga ne ulay kumul kaafiroon yi ñoom nga waar ak nga bañ a waar ñooyam sawaun alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yuminuun ndax lan xatama allahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim xishaaw wa lahum azabun azim waaye nag gis nga ñaar ñooñu ni mu gàttale ci seen biir waaye kuréel yu tam nam ca guddale nag na fekk moo tax na fekk mu gën a jafe xam ndax moom ñuulul weexul waaw waaw nga moom li ñuul moom ndobin gi ñuul moom da nga daan daa ñuul waaw picc mi weexit nga da daa weex waaye naat gi nga xam ne dafa boole weex ak ñuul moom moom day daqare expliqué nii la mel nii la mel laa ilaa haula wala ilaa haula bokkul fee bokkul fële naqari naa xàbbee lool sartu ñetteel ba mooy nag al inqiyaad boo nangoo nag nga nangoo def waaw boo nangoo boo xamee tawxid wóolu ko nangu ko nga nangoo wommatu nag def li la tawxid boobu sant nangoo wommatu ndax da xam dara ba noppi ah nangu ne mooy dëgg waaye nag bañ koo def loolu bari na lool ci diine ñoo xam ne sax loo leen waxal ci diine dañ nangu ne ah de moo waaye man dama koo mën a gut waaw waaye man kon kooku al inqiyaat la manqué le mooy wommatuwul te borom bi dana won wa man yuslim wajhahu ila allahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwati al wusta ki fab léppam jébbal yàlla jullit day fab léppam jox yàlla ba noppi nag di rafetal di rafetal wa lu ko yàlla digal mu def ko nañu ko ko digale kem kàttanam mu ne kooku moo téye ci euh, buum gu dëgër suñu borom delloo wax ne fala wa rabbika la yuminuun atta yuxakkimuuka fi ma shajara baynahum summa la yajidu fi anfusihim xarajan mimma qadayt wa yusallimu taslima nee na ngëm du mën a mat li feeg du lu xew ñu atte ko yonente bi alayhi salatu wasalaam ko alquran atte ko sunna laaj sunna yonente bi alayhi salatu lu mu ci wax te nag ñu xamee atte ba duñ ca am dara lu ñu naqari ci suñu biir xol summa laa yajidoo fi anfusihim xarajan mimma xadayt ndax léeg-léeg nga laaj bañ atte bañ a lii la waaye yow daal xawulaa neex daal bu doon yow daal sa coobare du demee nii waaw yow daal du demee nii lu mel ne ca wàllu miraas ba ñu ne daal góor na am ñaar jigéen na am benn yow daal nga am loo ciy sikki sakki na waaw lu tax ñoom ñu bokk benn bàyyi bokk benn lu tax ñuy jox kii benn ah doonte def nga ko waaye yaa nga cay am ñaggiiru xol kon ngëm-ngëmatut kon laa ilaha illallah ba matut ba tey moo tax mu ne way sallimu taslima dañoo war a jébbal lépp yàlla rek xam ne moom moo xam te ñoom xamuñu lu mu def rek loola moo jóg moo tax yonente bi alei salatu wasalam dala wax ne laa yuminu ahadukum atta yakuna hawaahu tabaan lima jitu bihi nee na kenn ci yéen ngëmam du mat li feeg bànnee xam toppul li ma indi wa ma kaana li muminin wala mumina ida qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum alxiyaratu min amrihi ku gëm yàlla su xasee wér na lii la yàlla atte lii la yonente bi alayhi salatu wasalaam jàngale amatul lu muy naan man nag nii laa ko gisee déedéet xiyaaratu amatu fi wa man yaasi llaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubinan ku mooy yàlla ko yonentam day eh, sànku la sart juróomeel bi nag mooy assidqu fi kalimati tawxid maanaam wax gi nga wax laa ilaha nga dëggu ci waaw dëggu ci ni ko làmmiñ waxee xol bi fase ko noonu mu bañ a mel na ni ko naafiq yi waxe naafiq dañuy wax ci seen làmmiñ kalimatu laa ilaha illa allah waaye dëgguwul ci seen biir xol dañ ko wax rek ngir ay intérêt ngir bëgg a dund ci biir jullit ñi ñu limaale leen ci seen biir ñu am ci njariñ yi jullit ñi am ak bëgg a mucc itam ci coono bi leen naroon dal bu ñu déclaré kéefar waaye moo tax borom bi ne yuxaadicuuna allaha walladina amanu waaye wa ma yaxdauuna illa anfusahum wa ma dañuy jéem ne dañuy jéem a nax yàlla man maanaam di jéem wan yàlla lu bokkul ak li nekk di jéem a wan jullit ñi itam bëgg jullit ñi jàppe leen ay jullit te fekk na du ñuy jullit mu ne xamuñu ne seen bopp rek lañuy ñuy nax te nag ñoom yëguñu ko fii xulubihim maradun fazaadahum allahu maradun seen xol feebar da caa nekk feebar nag jéemuñu ko faj feebar ba dal di gën a yokk feebar ku mu ne ci sa xol da koy jéem a faj la koy faj mooy alquranul karim wa nunazzilu min alqurani ma huwa shifa shifa wa rahmatul lil muminin moo tax yonente bi alayhi salatu wasalaam ci addis yi jiitaloon mu ne woon ma min ahadin yashhadu an la ilaha illa allah sidqan min qalbi illa haramahu llahu ala nnar mu def laa ilaha illa allah balaa mën a jariñ boroom mu dëggu ci biir xolam kon as sidqu sart la ci suróoti laa ilaha illa allah sart juróom benn ba nag mooy almahabba mooy na nga bëgg laa ilaha illa allah bëgg laa ilaha illallah mooy ndigalul borom bi tabaraka wa taala bu jógee doo ko yamale ak benn ndigalati même sa ndigalul sax bakkan sax lim la digal moom la ne wa min annaasi man yattaxisu min dunillahi amdaadan yuhibbunahum ka xubbillah walladina amanu ashaddu xubban lillah nee na am na ci nit ñi ñoo xam ne dañuy jël leneen di ko dendaleeg yàlla bëgg loola comme ni ñu bëggee yàlla ka xubbillah lu ñuy xamee bëgg ga mooy su kooka santaane yàlla santaane bu wutul santaane kooka sax la ñuy jiital bu fekkee santaane kooka la ñuy jiital kooka lañ gën a bëgg ci yàlla su fekkee dañoo yemale seen ñaari ndigal yi kon dañ leen a yemale ñoom ñaar te borom bi tabaraka wa taala nag ndigalam bu xasee jot kenn war a tuta topp beneen ndigal bu dul ba sol su fekkente ne dëggu gi nga dëggu ci gëm gi nga gëm yàlla lu dëggu la sopp gi nga sopp yàlla itam lu dëggu la moo tax mu ne wallazina amanu ashaddu hubban lillah seen bëgg yàlla dafay farakawe lépp moo leen gënal nu ñuy bëgg suñuy way seen i way jur seen i doom seen i alal seenu dëkk mooy aaya ba mu lim ca suratul tawba qul in kaana abaaukum wa abnaaukum wa ixwaanukum wa azwaajukum wa asiratukum wa amwaalun iqtaraftumuha wa tijaratun taxsawna kasaadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum min allahi wa rasulihi wa jihaadin fi sabilihi fatarabbasu atta yatiya allahu bi amri wallahu laa yahdi ñëwee du baax de waaw bu fekkente ne bëgg a déggoo ak sa ba tax doo jaar li ma wala bëgg a déggoo ak wala bëgg a sa jabar wala bu dee jigéen mu bëgg a jëkkëram ba tax du jaar ci santaane bi yàlla wala liggéey dox dëkk bi dama fay am alal dama fay liggéey ba am fi alal kon naa ànd ak ñoom ci li ñu ne ndax bu ma wuuteeg ñoom lu ñu ne bootul ñu kontaan wala damay commerce te damay bañ sama commerce lamb kon naa ànd ak nit ñi ci li ñu ne wala dëkk bi daal dafa neex ci man wa masakinu tardawnaha fii daal dafa neex ci man kon nag naa jubóog nit ñi ci li ñu ne ndax ñu yaatal ma fi mu ne su fekkee yooyu nag intérêt yooyu moo la al jaar fi lay yàlla jaarloo jihaad bi mu la jihaad loo ci aw yoonam kon nekkal ci loolu ba mu ñëw waaw ba dee ñëw waaw malaaka yi moom ku ñuy jël si ñaari yëf rek la inna allazina tawaffahumul malaikatu tayyibin ak inna allazina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim waaw ñaar yooyu rek ku ñuy jël si ñaar yooyu boobu ci lañ lay fekk benn malaaka yi di la jël fekk la ngay ku teey lu ñu wax wax xaaloo salaamun aleykum udxulul jannata bima kuntum ta'malun loolu la malaaka yi wax yaa ayyatuha nafsul mutmainna irji'i ila rabbik radiyatan mardiya amma nag ku ñu fekk nga tooñ sa bopp luñ ñoom ñoo lay posé nag fii ma kuntum waaye ci loo newoon ban jël si la nii nga ne kunna mustadafina fil ard man de dañ ma néewaloon doole bëggoon na ma dund tawxid waaye sama bàyyee bañoon wala sama jabar wala sama doom wala daal fa may liggéeyee bu ma bëggee jaamu yàlla ñu dàq ma mu ne alam takun ardullahi waasi'atan fatuhaajiroo fiihaa foofa dong la yàlla amoon ci suuf te war ngaa gàddaay dem feneen fa ulaayka ma'waahum jahannam wa saa'at masiir gis nga malaaka yi ñoom ku leen di romb di bëgg a dugg safara ñoom dañuy jaaxle dañ lay laaj alam yaatikum nadiir yéen xanaa safara kenn waxu leen ko qaalu balaa qad jaana nadiir waaye fa kazzabnaa wa qulnaa maa nazzala llaahu min shay in antum illa fi dalalin kabir waaw malaaka yi dañ leen di yërëm ndeysaan waaw yéen alam yaatikum nadiir xanaa kenn ñëwul woon adduna waar leen wax leen ne safara am na foofa kenn mënu faa dañ ñu ne balaa xat jaa na nadir waaye fa kazzab naa dañ leen a weddi woon ñu leen da ngeen a réer in antum illa fi dalalin kabir waaye gis nga ñu daal ne law kunna nasma aw naqil kon ma kunna fi ashabi sair bu ñu déggoon ña doon woote ña doon wax alquran ak sunna bu leen nangu woon a dégg jëfandikoo sun xel kon tey duñ tabbi safara waaw ndeke kon safara ku fa tabbi rek li yonente bi alayhi salatu woon man ataa ani daxala al janna wa man asaani faqad aba dana woon kullu ummati yadxuluna al jannata illa man aba nee na sama xeet wi ñëppay dugg aljanna lu dul ko bañ ñu ne ko wa man ya aba ya rasulallah ana kan mooy bañ a dugg aljanna mu ne man ataa ani daxala al janna wa man asaani faqad aba ku ma topp dugg aljanna ku ma mooy yaa bañ ndax aljanna moom amul beneen bunt boo mën a jaar pour dugg fa te toppoon li yonente bi alayhi salaatu wasalaam nekkoon pas-pas il faut nga yor mel ne bi mu yoroon fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw waaw waaye wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq waaw fa bi misli misli la bi ku fi woote woo diine bu gëmee lu mel ne li ngeen gëm yow Muhammad yaag say sahaaba kon faqad ihtadaw gindiku la waaw waaye ku fi andi beneen pas-pas boo xam ne yonente bi alayhi salatu wasalam bu ñu ko walaajoon xamu ko ay saxaabaam xamuñu ko kon fa innama hum fii siqaaq kooku bëgg naa tàggali ko jullit waaw parce que tàggali ko bi dara andiwu ko rek lu may yeneen yi ñu ci dugal wa man yusaaqiqi rasul min baadi ma tabayyana lahu lhuda wa yattabi gayra sabili lmuminin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa saat masir nee na wa man yusaaqiqi rasul ku ŋaayoog yonente bi yonente bi ne nii la gën a la lii mooy sunna nga ne waaye lii mooy aada lii mooy baax lii la sëñ jiw doon def lii la diw xam yow buñ la xasee ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam lii la wax li nga war a lijjanti kay mooy waxu ko mais gannaaw mënoo dox xadis bi moom wér na li war rek mooy topp innama kaana xawla almuminin isa duu ila allahi wa rasulihi li yaxkuma baynahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun xawla almuminin moom loolu la ku gëm yàlla boo ne koo kaay lii la yonente bi alayhi salatu wasalaam jàngale ci sunna lii la alquran wax waru caa teg lu may sami'na wa ata'na bu ca tegee waaye rek bay booba ko fa te dem waaw wér na ba noppi waaye mu naan waaye nag waaye diw defu ko woon waaye diw xamu ko woon diw bu ko deful woon nag maanaam da koo xamul woon suñu borom ñi ñu jiitu woon lim nu sant ci ñoom mooy ñu di leen ñaanalum jëggal walladina jaau min baadihim yaquluun rabbana xfir lana wa li ixwanina alladina sabaquuna bil iman wala tajal fi qulubina xillan lilladina amanu rabbana innaka raufur rahim parce que tukki la boo xam ne bagage bi dafa diis bagage bu l'islam lépp daa neexut a yóbbu léeg-léeg da nga ciy waddale dara waaw waddale mooy yi waroon te defoo ko wala yi ñu la ko koo fi ku nekk rek daanaka am nga ci waaw am nga ci léegi nag kookee ñi ñëw sa gannaaw nag ñoo la war a foral li nga waddale waaw boo jaaroon boo jóge woon tey daara di ñëw fii ci dëkk am loo waddale waaye ah jiw de bu ñëwee li koy wax yow foo fi saw dal ah man de dama fee de sóoru leen ci wala sóoru leen ci montal ah xam nga moom nga yaakaar mu ëndaalee la loolu mooy mag ñi nu jiitu ci diine bu amee rëcc rëcc yu ñu def dañ leen war a ñaanal yàlla jéggal leen ko waaye nag suñ nee nag dañuy répété rëcc rëcc ya maanaam fa nga waddal saw daal gaa yi toll fa ne nañ sumi suñuy daal la wàcce fi noonu itam wàcce fi daal la barkeelu la ki fi wàcc nga ne leen waaw ak leen ni leen wax sama daal la wañ ñu da añu ah, leen wàcc leen de nga ne leen def ngeen musiba <laughs> laa yaakaaroon ngeen indaale ko ah, mooy nag ki fi jiitu woon def fi loo xam ne erreur la def fi loo xam ne xëy na ñàkk xam-xam wala erreur moo ko ko taxoon a def yéen ñi ñëw di ay doomam wala ngeen di taalibe wala ngeen di leneen da ngeen ko ko waroon a ñaanal ak njëggal waaye ngeen ñëw ne su fi defee benn dañ ko def téeméer su fekkee wenn daal la fi waccoon noonu dañ ci wacci téeméeri daal noonu ah mooy li ngay dégg ñuy wax di ko bàkkoo man sama bàyyi lu mu fi defoon bu dee benn naa ko def téeméer mbaa sa bàyyi li mu fi defoon lu baaxul ah bu dee lu baax la moom def ko junni baaxul waaye ne war ngaa vérifier ndax ba xam lu baax la am de koo baril bala nga koo baril bala nga koo yokk na nga vérifier baax garum de ndax kat inna wajadna abaana ala umma yàlla xaste na ci ba tàyyi wa isa qiila lahum taalaw ila ma ansala allahu wa ila rasul qaalu xasbuna ma wajadna alayhi abaana ñu bari seen mbir foofu la yem boo leen ne lii la sunna wax ñu ne daal man daal du ma fi soppi diine man daal moom doo ma soppi loo diine man daal li ma fekkoon saa lay bàyyi ak saay maam ne si ci loolu ci lay fàtt mais du loolu déedéet diine la wér mooy li jóge ci yonente bi alayhi salatu wasalam walladina amanu wa amilu salihat wa amanu bi ma nuzzila ala muhammadin wa huwa alxaqu min rabbi ma nuzzila ala muhammad waxuñu ala abika de ma nuzzila ala muhammad wa huwa alxaq rek jeex na li wàcc ci yonente bi alayhi salatu salaam la yàlla ne moom rek kay dëgg waaw leneen loo def ci mënoo lijjanti ba ne wàcc na ci yonente bi alayhi salatu salaam du dëgg wa amanu bi ma nuzzila ala muhammadin wa huwa alxaqu min rabbihim kaffara anhum sayiatihim wa aslaha baalahum kon diine looy def la nga war a def mooy vérifier ba mu leer la ne lii wér na ne ci yonente bi alayhi salatu wasalaam la bàyyi ko juróomeelu ñaareelu sart ba nag mooy al mooy nag sellal ndax sellal moom lu mu génn rek loola daa baaxatu day mel ne ni roo mel ci jëmm noonu la sellal mel ci jaamu yàlla waaw ah boo gisee ab jullikat kay bu ko yàlla dig buggal mooy julli ga dafa amatul roo fa waylun lil musallin lan moo leen ko yóbbee allazinahum an salaatihim saaxoon ixlaas moo fa nekkatul ah xaashi'oon bu demee rek saaxoon ñëw mais qad aflaha al mu'minuun allazina hum fi salaatihim xaashi'oon fa waylun lil musalliin allazina hum an salaatihim saaxoon gis nga kon ñoom ñaar ñoo ànd rek saaxoon ñëw waaw ah, xaashi'oon yàlla ifla falaax la leen di qad aflaha al mu'minuun allazina hum fi salaatihim xaashi'oon waaye fa waylun lil musalliin mu amatul rakka yu sëgg ka siggee ki yu amul amul ruu moo tax kon ñu arrêté ba ci incha allah barakallah ah ñu dem message bi waaw mooy sekkale waaw kon ixlaas boobu moom la borom bi ne wa maa umiru illa li yaabudu llaha muxlisina lahu diin digaluñu leen lu may ngeen jaamu yàlla waaye nag ngeen sellalal ko diine jooju jaamu ko xunafaa wa yuqimu salata wa yutu zaka wa dalika diinul qayim nee na loolu mooy diine ju jub waxaat ne fa'budillaha muxlisan lahu diin jaamul yàlla te salal ko diine juróom-ñetteelu sart ba nag moom mooy sax ci ba faatu ci waaw kooku moom mooy sax ci moom mooy sax ci ndax wa'bud rabbak atta yatiyaka al yaqin yaqin boobu mawtu lay firi am na ñu koy firi dem ba wóolu dem daal xanaa gént ay gént ne man yëg naa ne yegg naa ci yàlla kon léegi man damaa bañ a sonn ci yëf yi boo musiba la seytaane da koy def seytaane boo dëgërul lool lool sa ngëm da wan ay mbir di la wan ay kéemtaan ba nga jàpp ne yow daal kenn sutatu la wilaaya waaw waaw mas nañu wax ne mas naa feeñoo Cheikh Abdul Xadir Jilaan muy julli ba yàgg mu gis ak leer gu jóge ci kaw leer nañ ba yàgg mu wert ba yàgg leer gi dañ mu seen ko tëdd ci ab piliyaan ne ko yaa Abdul Xadir ana rabbuk if'al ma shi'ta xafartu lak sunu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar if'al ma shi'ta mu ne ko kasabta yaa abdu waaw ba mu ko defee rek nee na bu daal di siin mu def ko sawar a takk daal di dem léegi ca ba ca yàgg nag nee na mu doog a ñëwaat nag feeñu ko nag ne ko waa yow Abdul Xaadir noo ma xame lii ma la doon wax réeral naa ci ñu bare bare bare bare bu ma leen waxee lii rek ñu ne yàgg nañ ci yàlla duutuñu jaamoo ci yàlla mu ne ko bi nga ne if al ma shi'ta rek defal lu la soob laa xam ne yàlla du wax ne yàlla dafa am lu mu ne sant ak lu mu ne tere néew ñu def leen lu leen soxla waaw mu ne ko fa bi fiqhika najawta dégg gi nga dégg fiq sa dégg gi nga dégg diine ci nga mucc fa bi fiqhika najawta sa dégg diine ci nga mucc moo tax diine il faut nga di ko teg ci xam-xam loo gis ak loo gént ak luñ la mën a wax ñëwal peese ko ci nusoosu charia yi waaw ñëwal peese ko ci la alquran ak sunna wax parce que suñu borom tabaraka wa taala li mu yónni yonente bi alayhi salatu mu jàngale ko wax amul leneen lu mu lay jàngalaat feneen lu wuuteeg loolu loo gis ñu wax la ko ci gént wala wañ la wax la ko ci leneen nga seet ko ci alquran mu wuuteeg moom nga seet ko ci sunna mu wuuteeg moom xamal ne kala ko wax seytaane la kala ko wax seytaane moo tax saaba yi am na saaba boo xam daa mas a ñu am ku ñëw ne ko euh, man dama gént yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ma ñun de yow da nga koo gént ñun moo daan moo jàkkaarloo woon ak ñun ne ne nu soomoo li ru'yatihi yow da koo gént ñun dafa toog ak ñun wax nu waaw ñun nag kon duñ bàyyi sa loolee mu toogoon ñun wax na ko di topp sa gént boobu yow sa gént yow waaw loolu la ñu jàngal lam la ñuy def te dafa toog ñu koy gis mu ñuy gis ñu wax ñu loolu yow nee da nga koo kon nag moo tax kon lu la way bëgg a nettali yow te yonente bi sallallahu alayhi wasallam am lam la jàngal mu leer nañu ci sunna alquran karim wax la lii alquran a gën moom nga war a gën a jiital ci leneen lu ñu lay wax lu wuteeg moom kon daal sax ci ba faatu ci moo tax yonente bi alayhi salatu wasalaam wax ne dee leen ñaan yàlla ak mujj gu rafet ndax inna rajula la yaamalu alzamana tawil bi amali ahli aljanna summa yuxtamu lahu amaluhu bi amali ahli nnaar wa inna rajula la yaamal alzamana tawil bi amali ahli nnaar summa yuxtamu lahu amaluhu bi amali ahli aljanna moo tax nit ki bu mu naagu bu mu naagu course la bu téeragut saabiqu ci course bi lañ ne saabiqu dañoo suuf la rek ñuy daw waaye dawa dawa daw ba yàgg taxaw leen gars yi jël na première ah <laughs> te te te egg goo ci ci ci ci naanukaay bi day def te ñun nattukaay yi ñuy waxee diwee jël première suñ borom leen wala balul a yaxsabuuna annamaa numidduhum bihi min maalin wa baniin nusaari'u lahum fil xayraat bal laa yash'uruun ñun kuñ gis mu bari alal bari mbooloo bari daraja su wootee mbooloo mépp ñëw ñu ne kilifa ku mag la kooku moo raw gaa yépp kooku wilaayam kooku moom bënn na kooku du moroomu gaay borom bi ne mbir mi nekkul foofu de kaay ma wax leen kiraw fi mu ne inna alladina hum min xasiyati rabbihim musfiqun walladina hum bi ayaati rabbihim yuminuun walladina hum bi rabbihim laa yushrikuun walladina yuutuuna maa aataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raaji'uun ulaa'ika yusaari'uuna fi lxayraat wa hum laha saabiquun ñoo ñoo jiitu waaw ñoo ñoo jiitu ñoo ñoo raw loola du juddu du aw sant du alal du daraja ay melokaan la inna allasina hum min xasiyati rabbihim fu ñu toll ñu ngi tiit ngir ragal seen borom wallasina hum bi ayati rabbihim yuminuun dañoo gëm alquran boo leen ne alquran nee na duñ ca teg baat wallasina hum bi rabbihim laa yushrikuun duñ bokkaale ak yàlla dara ñetteel ba wallasina yootoona maa aataw wa xulubuhum wajila aaya boobu nag sayyidina Aysa laajoon na ko yonente bi alayhi salaatu wa salaam ne ko waaw wallasina yootoona maa aataw wa xulubuhum wajila ki nga xam ne day def la muy def ba noppi di tiit koo xanaa mooy ki sàcc wala mu fen wala mu naan sàngara ba noppi mu ne ko mooy ki jaamu yàlla julli woor jàng alxuraan ba noppi tiit ndax xamul yàlla nangu na ko déet waaw da ngay tiit da nga yaakaar mais da ngay tiit yad'unana raghaban wa rahaban wa kaanu lana xaasiqiin ñaar yooyu ngay boole raghaban wa rahaban da ngay dégg ñuy bàkkoo naan man man jaamu yàlla ngir yaakaar àjjana wala ragal safara kon def nga musiba boo ragal yaakaaroo yàlla ragaloo yàlla rahmaani rahim yaakaaroo ko maliki yawmi diin ragaloo ko kon gëmoo yàlla daf ne dañ may ñaan raxaban xemmeem li ma yor waaye rëhaban ragal li ma yor itam muy safara waaw ndax daf ne nabbi ibaadi anni ana alxafuru rahim waaye wa anna azabi huwa al azabul alim waxaa sama jaam ñi ne leen maay yërëme kat bu mag bi waaye maay duma kat bu mag bi waaw ne ni ma mën a yërëme ni laa mën a duma nabbi ibaadi anni ana alxafuru rahim waaye wa anna azabi huwa al azabul alim fa yawma idin laa yuazibu azabahu ahad nee na keroog mbugal moom muy mbugal kenn mënu ko mbugal waaw parce que mbugalum àdduna adduna coonob adduna lu mu metti metti metti mi ngi yem ci dee waaw wala bu lay tëkku sax naa la naa la dóor ba nga dee waaw fi ne peine bi gën a rëy ba tudde ko peine capitale mooy condamné à mort bañ nañ ko ba peine capitale lañ ko tudd amuñu leneen lu ca topp di condamné nañ ko à mooy peine capitale moo gën a kawe ci ak pourtant àllaaxira nag mooy ba fa gën a sedd moom dee fa gën a sedd waaw ñe nekk sawara dee la ñuy ñaan wanaadaw yaa Malik li yaqdi alayna rabbuk qaala innakum maakisun ñi nekk àdduna dee la ñuy muslu ñi nekk safara ñoom dee la ñuy ñaan kon moo lay xam ne fi mbugalum doomu aadama yem fi la mbugalum yàlla tàmbalee moom jëm kaw doomu aadama mbugalam mi ngi yem ci nga dee foofu la lim la mën a lépp foofu la yem yàlla ne mbugalam ci deegoo moo ci gën a sedd ca la tàmbalee jëm kaw kon yàlla nu ci yàlla ñu arrêté ba julli incha Euh, ñu ngi doon tudd kon charte yi nga xam ne mooy war a tax nit ki mu jariñu ci baatu tawxid bi di laa ilaha illa allah ñu tuddoon ca ne na ko xam xam li baat bi ëmb ñaareel ba su ko xamee na ko wóolu ñetteel ba na ko nangu ñeenteel ba na nangoo wommatu topp li baat bi digle juróomeel ba na ca dëggu juróom-benneel ba na ko sellal juróom-ñaareel ba na ko sopp juróom-ñetteel ba na ca sax Cheikh Xaafis al Xakami tënk na ko ci ñaari bayt mu ne al ilmu wal yaqiinu wal xabuulu wal inqiyaadu qadri ma aqulu wa sidqu wal ixlaasu wal mahabba waffaqaka allahu lima ahabba juróom-ñett yooyu melokaan la yoo xam ne fokk nit ki di ci nemmeeku boppam ba xam fan la ci toll ngir mu mën a jariñu ci kàddu tawxid am na meññet yi nga xam ne nag dana jële ci nit ki dana ko jële ci bu amee tawxid la ca jiitu mooy mucc ci seytaane ku am tawxid dëgg dëgg dëgg dëgg seytaane du mën ci moom dara moom sax moo ko waxal boppam ba muy wax dinaa leen réeral la ne illa ibadaka minhumul muxlasin lu mooy sa jaam yi nga xam ne nag yaa leen tànn sellal leen ñu am tawxid suñ boroom ne innahu laysa lahu sultaanun ala alladina amanu wa ala rabbihim yatawakkalu suratu nahl nee na seytaan amul benn sultaan amul benn pouvoir moom iblis ci ñi gëm yàlla te di lu ci yàlla ñooñu seytaane amul ci ñoomu yoon te xam ngeen ne mucc ci seytaane rek ku ko def ndimbal la lool ci nga mën a texe bariwaa na la doomu aadamay tàbbi loo xam ne seytaane moo ko ci dugal ñaareel ba ci li nga xam ne tawxid dana ko jur mooy alhidayatu tawfiqiya mooy jub goo xam ne tawfiq la suñu borom moo la koy defal ndax jub day ñaar jubug tegtal goo xam ne dañ laa tegtal yoon wi rek moo xam da ko topp wala doo ko topp ak jubug nag ñu teg la ci yoon yi mënatoo ko wàcc bu njëkk boobu nga xam ne mooy wan la yoon wi moom la yonent yi man ak nit ñu baax ñépp loolu rek lañ man doomu aadama lu mu am am daraja ak lu ko yàlla sédd sédd mënta weesoog moroomum doomu aadamaam wan ko yoon bu jubbi moo tax mu ne yonente bi alayhi salatu wasalaam wa innaka la tahdi ila siratin waaye teewul mu del siwaat ne ko innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha gis nga kon ñaar innaka la tahdi innaka la tahdi kon duñu benn bii mën nga ko waaye bii mënoo ko innaka la tahdi ila siratul mustaqim man ngaa wane siratul mustaqim ku la topp nga wan ko yoon wu jubbi bu ko wàccul dana taxe amaa na nga kii dama ko bëgg rek faw da dama ko yéen ak dama ko yéen ak njub bu ci jaaree bu ci jaarul dama ko ci bëgg a jaarale par force mu ne ko loolu mënoo ko bu la gisoo mu ne ko amma samoodu fa hadaynahum fastahabbu al ama ala al huda bu doon hidaayatu tawfiqi la duñ mën a gumbaati waaye dama ne dama leen a tegtal waaye ñoom ñu tànn ngumba waaw joxañ naa leen ni leen yoon waa nga ne ñoom ñu gëmm nag wuñ caa jaar amaa bu doon hidaaya tawfiqi mooy bi yàlla ne moo koy def moom mooy tënk la ci yoon yi moom mënoo wàcc boobu la def ci fàtte yéen a jëriñ ma ko ñaan ihdina siraatal mustaqim boo gisee ñu koy ñaan toujours mooy boobu te suñu borom ci ay ngëneelam saar woowu mu def ko muy saar woo xam ne julli te jàngu boo jàngoon baqara ba minal jinnati wa naas te jàngoo fatiha rakka bi wala bëragut waaw boo jàngoon fatiha dong mu fàttali ci ne si boo sëggee rakka bi dana baax même boo fàttew saar boo ko sujjootee mën na koo yóbbaale kon moo lay xamal ne fatiha mënta te li ci jiitu waxoon naa ko iman bi la ak tawxid li ci ak ñaan la gooy ñaan sa borom tabaraka wa mu may la hidaayatu tawfiq suñ borom nag nee na ku am tawxid daf lay may hidaaya boobu wa inna allaha la haadi alladina amanu gis nga foofu yonent bi borom bi ci boppam la wax ne mooy gindil boppam wa inna allaha la haadi alladina amanu ila siratin mustaqim yàlla nag comme wan siratul mustaqim dootoo ko mën a wàcc waaw dootoo ko mën a te wàcc delluwaa wax ne inna alladina amanu wa amilu salihat yahdihim rabbuhum bi imanihim ay bi sababi imanihim inna alladina amanu wa amilu salihat yahdihim rabbuhum ñi gëm yàlla tey def lu baax am tawxid suñu borom moo leen di gindil boppam ci sababu ngëm gi am waxaat ne walladina htadaw zaadahum hudan wa ataahum taqwa nee na ñi jéem a jub jublu jéem a góorgóorlu ba am tawxid nee na maa leen ca yokkal ak njub nag tënk leen ca jub ga ba duñ ko mën a wàcc kon loolu bénéfice la bu rëy ci tawxid waxaat ne waman yahdi waman yumin billah yahdi qalba waman yumin billah yahdi qalba suratu taqab ñetteel ba bokk na ci li muy ju ak sabaatu alal xaq yàlla may la nga mën a sax ci dëgg parce que gëstu dëgg ba xam ko baax na lool rëy na lool waaye ñaareel ba nag man caa sax nag man caa sax ndax dëgg yi dafay metti wala xad ji'naakum bil xaq walakinna aksarakum lil xaqi kaarihun dëgg dafa wex dafa am wex san moo tax mu ne watawaasaw bi sabr watawaasaw bil xaq waaye watawaasaw bi sabr waaw garab la boo ko mu boo ko góoxee rek boo boo muñul da ko yàq waaw dëgg dafa métti moo tax du baree baree te nag mooy faj nag mooy faj mooy faj moom waaye nag il faut nga muñ il faut nga muñ pour man caa sax moo tax ñu naan rabbana afrix alayna sabran wa sabbit aqdamana rabbana afrix yàlla yàlla nga sotti ci nun ak muñ te saxal sunuy ndëgg ba duñ wàcc duñ tarxiis borom bi ne yusabbitu llahu alladina amanu bil xawli sabit fi lxayaati dunia wa fi laxira wa yudillu llahu zalimin nee na ñi gëm yàlla da leen di saxal ci alxawlu sabit jooju di laa ilaha illa allah mooy kàddu gi nga xam ne moo sax du randu benn yoon ci adduna ak ci alaxira bu ñu faatoo bu leen ko malaaka yi laajee ñu mën koo tontu fekk dañ caa saxoon ci adduna duñ ko dund waxaat ne qul nazzalahu ruuxul qudusi min rabbika bil xaq li yusabbita alladina amanu wa hudan wa busra lil muslimin waxal ne alquran ji jibril moo ko wàcce bu bàyyi ko sa borom lan moo tax alquran wàcce ngir dëgëral ñi gëm yàlla ci seen ngëm alquran boo ko dee jàng day gën a dëgëral sa ngëm wa isaa tuliyat alayhim ayatuhu zaadathum imaana garabuk iman boo ko jëmbatee dee ko suuxate ndoxam alquran boo ci dee sotti ndoxam alxuraan foo toll di jàng alxuraan rek sa gëm day gën a dëgër waaye boo gëjee jàng alxuraan rek moo moom la naan alam yaani lilladina amanu an taxsha qulubuhum li zikrillah wa ma nazala min alxaq wala yakunu kalladina utu alkitaba min qablu fa taala alayhim al amadu fa xasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun mu ne bu leen mel na ñi leen fi jiitu woon ba téere ba yàggee ci ñoom téere bi yàgg yàgg yàgg ba sàppi leen waaye seen xol yi daal di mujj woon alxuraan ku ci géej rek sa xol moom moom mooy tooyal kon alxuraan dañ ko war di jàng moo tax borom bi ne faqra'u ma nga bëgg a wutu lay mu ne la alima an sa yakunu minkum marda wa axaruna yadribuna fi l ard wa axaruna fi sabila mais teewul faqra'u ma tayassara min mayu la foo boo feebaree mu la xam naa damay tukki mun a xam naa ko damay jihaat mun a teewul jànga ba waaw boo koy bàyyi di mi ngi mel ne ñam bi rek ñam bi loo sonn sonn ñu ne mosal ñaari kudd rek waaw loo feebar feebar ñu ne di di li ko mu mën ñaari kudd rek boo mosul lee bu dee waaw waaw yaram bi suur naa suur naat ba bokk yi dañ lay jatt sax sol la ko <laughs> la ko de balaa balaa dee noonu la war a jatte sol la alxuraan boo boo defoo rek musiba dala ko waaw. waaw mu ko noonu yaram bi di dundee ci ñam bi noonu la alxuraan roo gi di dundee ci alxuraan roo dafa soxla ñam ñamam nag mooy alxuraan innama almuminuuna alladina ida zukira allahu wajilat qulubuhum wa ida tuliyat alayhim ayatuhu zaadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun gis nga naafiq yi nga xam ne ñoom seen xol dund su aaya wàccee wa ida unsilat suratun fa minhum man yaqul ayukum saanathu hadihi imaana ah ñoom bu ab saar wàcce duñ njëkk dara lu leen dolli parce que njëmbat lu jébbiwul la njëmbat lu jébbiwul lu ci taw bi man ah njëmbat lu jébbiwul lu mu taw taw taw moom dana waaw est man yëg ngeen taw bi comme ñoom ji jëne ñeneen ji nañ ngëm yàlla waaye jébbiwul moo tax bu yonent bu alxuraan wàccee muy taw bi alxuraan day taw ci xol yi alxuraan taw a taw a taw ba noppi ñu ne waaw yéen aaya bi doon wàcce léegi ayukum saanathu hadihi imaana suñ borom ne fa amma alladina amanu ñim fekk ñu jebbile fa saadathum imaanan waaye wa amma alladina fi qulubihim maradun fa saadathum rijzan ila rijzihim wa maatu wa hum kafirun loolu rek la saa boo déggee alxuraan moo noppi ne man yëguma dara ñu waxtaan nga daan wax ji daal man daal wax ji dugguma man daal affaire bi daal dara dugguma ci kon bay moo nga seetiwaat sa bopp <laughs> seetiwaat sa njëmbat waaw waaye njëmbat bu jebbee moom ku wasantel poto ndox mu yëg waaw ah, koo ko sottil pot ndox muy ko bu jébbiwul nag ah boo ko sottee sax day rew reen yi far day day gën a rew rew reen moo tax mu ne fasadat fa bëri ñeenteel ba ci li ñuy jariñoo ci tawhid mooy ku ko am suñu borom da lay aar fexe yi ñu lay fexee la ñay lañ jéem a jibar ak ñay xaatim di la ci dugal ak ñay fas di la ca dugal ak yépp du yegg ci yow inna allaha yudafiu an illazina amanu yàlla comme défendre lu ci nit ba inna allaha yudafi'u anil ladina amanu moo tax loolu ngay jéem a sonn ci yooyu naan ma damaa ragal déedéet wéerul ci yàlla rek amal tawhid bu ma sëkk fexeel ba sa xol bu mu ñaxe parce que kooku yooyu mu lay def sawara law muy jafal di sànni safara nag bu fa fekkul mbob du takk bu fekkee xal bin salim la fa fekk xal bu xam ne amul kiñaan amul rëy amul bokkaale waa ji di la jéem a jabar du am lu mu communiquer ci sa xol ba di la jàpp mais sa xol nag su fekkee bokkaale mu wàcce ne bu la waay yónnee que am na lu ko recevoir am na lu ko teeru mais mel na sa kër ñaxee rek bala waaye kosee almet sànni rek bootul saw sa kër <laughs> sa kër moo ñaxe moo tax mu ne illa man ata allah bi qalbin salim da am xalbun salim su ko defee rek borom bi tabaraka wa taala daf lay aar dellu wax ne wa kaana xaqan alayna nasrul muminin yàlla moo warul ci boppam ci ngëneelam ak mbaaxam ne faw ma dimbali ñi gëm yàlla àq la boo xam ne man yàlla maa ko warloo yàlla comme dimbali in yansurkumullah fala ghaliba lakum yàlla comme dimbali kenn du la mënal dara waaye nag ndimbal la ci sartu ngeen am iman la in tanzurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum juróomeel ba ci li muy li ñuy jariñoo ci tawxid ba tey at tamkiinu fil ard mooy yàlla day may doole jullit ñi ci kaw suuf bu ñu amee tawxid jullit ñi seen nasax gi ñu nasax ci kaw suuf dara warulu ko la may ñàkk tawxid rek du caa génn ñàkk ay moyen tax ñàkk ay ay arme wala yu demee noonu déedéet yooyu war nañ ko waaye keneen mën nañu koo ëppale yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñim daan xeexal ñëpp ñoo ko doon ëpp mbooloo ñu koy ëpp arme te moo leen di gagné kam min fi'atin xalilatin galabat fi'atan kathiratan waaye bi iznillah wallahu ma assabirin iznillah da cay ànd ah kon jullit ñi dëgg la bari na ñu leen ëppi ngànnaay daanaka amuñu sax ay ngànnaay waaye bu ñu amoon quwwatul iman am ngëm yàlla gu dëgër am tawxid ku ñu jàkkaarloo rek dañal parce que nag walillahi junuudu samawati wal ard yàlla li mu yor ci soldat seen sànne ko li muy rëy rëy ay sànq lañ wala yoor dong mën na leen ko yebal moo muy déterminé éliminé leen ñoom ñëpp waaw. waajee daaw avion de guerre ba bu dugaloon aw yoo ci biir nopp bi rek du xam fu avion bi jëmati <laughs> du xam fu bi mu ko kon walillahi junuudu samaawaati wa maa ya'lamu junuuda rabbika illa hu soldat yi suñu borom yi duñu jeex te moom rek moo leen xam waaye nag yàlla digg daf ne wa'ada allahu allazina amanu minkum wa amilu salihat la yastaxlifannahum fil ard kama staxlafa alladina min qablihim wala yumakkinanna lahum diinahum alladi irtada lahum wala yubaddilannahum min baadi xawfihim amnan waaye nag ci sàtt bi nag mooy yaabuduuna nii laa yusrikuuna bi say am bu ngeen ko defee rek ma def li ma wax loolu la wax de yàlla dig na ñi gëm yàlla ne la yastaxlifan dana leen def xalifa ci kaw suuf ngeen yilif suuf si dana leen dëgëralal diina ji diina ji am doole ba lu ngeen bëgg a at fi ne diina ji dafa feebar parce que lu bari soo ko bëggee def doo ko sañ boo bëggoon a dagg loxo sàcc tey yow ñu yóbbu la police yow tëj la kaso yow ah kon sañoo ko ku rey nit nga ne dama koy rey ñu la boo koy rey ñu di la rey yow itam ki njaaloo nga ne dama koy la ci sa yoon ñoom ñaar ñoo ci d'accord lu ci sa yoon ah te borom bi doon azaniyatu wazani fajlidu kulla wahid minhuma mi'ata jalda wala taqusukum bihima ra'fa bu leen leen yërëm in kuntum tu'minuna la ca teg de billahi wal yawmil akhir ah am na lu mën a ku la def ba léegi loolu nag borom bi tabaraka wa taala ne dinaa leen dëgëralal seen diine ji nga xam ne moom laa leen gërëmal seen ragal gi ngeen ragal fi mu ne jullit dund diineem fu ko wàcc dañ koy menacé day tiit waaw la gis nga yorub sikkim wala nga melokaan woo xam ne wuy niru ab jullit nga aéroport boo wàcc bootul bala nga koo génn da nga da nga da nga sonn waaw fu ne dañ la fa dugal poste bu ne laaj wala dañ la ko laaj buñ la defee réewul sax far kon yaa si tiitaange waaw mu ne nag su ngeen bëggee tàggoog yooyu nag yaabu doone nii da ngeen may jaamu man képp te laa yusrikoona bii sey an du ngeen ma bokkaale teg dara kon nag jàngoro jooju la ñuy xool nag ndax am na ci suñu ndax jaamu nañ yàlla kese ndéet wala ndax même ko dee jaamu ndax bokkaale wuñ ko hmm? boo seetee li baree baree bari jaamuñ ko même ña koy jaamu ña ci dul bokkaale néew ndax nee na woon yonte bi wa maa aksaru naas walaw xarasta bi muminin nee na ku li ëpp ci ñi loo xër xër xër duñ gëm del wa maa yuminu aksaruhum billah illa wa hum kon jullit ñi suñu dee jàmbat nañ njëkk a seen jàngoro ba pare noon yi kay dañ noo bañ noon yi kay nangam nangam te fekk na noon gi li ko waral lu ci bari ci suñ biir la nekk li ko waral suñ biir la nekk parce que jullit buy jëfandikoo ak njibar njibar dafa law lool ci biir jullit ñi dañ koy rafetal lañ solol ko mbubbum rafet parce que ab njibar ab sëriñ lañ koy tudde la muy defee ak ñaan lañ koy tudde naan damay ñaan la xam nga ñaan moom lu ragal la ci lislam sëriñ it luñ xam la fekk na tudd tudd ñaan ka koy defee tudd tudd sëriñ ab jibar la la muy def ak njibar la ñun nag ñu rafetal ko ne day ñaan ñaan goo xam ne ay xaawa ki fas la te ki nga xam ne day fas di wol suñu borom def ne aw ay la yor wa min sharri nafasati fil uqad moo tax léeg-léeg ngay gis yow sa loxo di metti wala sa baat ñu takkal la ak fas wala da ngay gis même ñoo xam ne dañuy góor sax dañuy defee ne loolu ay ñu la demal ci góor gi ci koñ bi wala meer bi mu fasal la ko boole la wëñ bu xonq ak gu weex ak gu ñuul daal di am lu muy wax nganam nganam tax nga takk loolu di nga takk xanaa jàngoo fan la borom bi ne musulu leen wa min sharri nafaasaati fil uqad ayu ñi nga xam ne dañuy fas di wol dañuy fas wax am lu ñu nga xam ne ëf fas kooku muy nafaasaat fil uqad borom bi ne sharr la yor musulu leen ci yorul xayir loo xam ne aw ay la borom bi ne woon musulu ci yow nga ciy wute jariñ yow kon li muy tekki moom mooy xamoo sa diine xamuloo sa diine li ko waral lu baree baree bari mooy pas-pasu tawxiid bi moo leerul mu léeru lu ci baree baree bari dañ ko see bàyyiwaale ba jàpp ne ci la dëkk kon jullit ñi buñ bëggee am doole ci kaw suuf la koy may rek muy tawhid bokk na ci li muy mayee itam moom tawhid bennoo xam ngeen ne jullit ñi tey ni ñu tàqalikoo rawatina si suñ réew mi gis ngeen li koy gën a symboliser tàqalikoo gi gis mu woye weer wi weer yi bu ñëwee weer xëy na am na foqaaw yi ci wute wax ne xëy na ay réew yu bokkul waaye menn réew wala sax ñu bokk menn néeg moo tax benn waaye wax ne ma frontières yi ci bopp yi la nekk waaw ah, Sénégal frontières yi nekkul ci réew yi mais frontières yi bokk la nekk waaw ah, frontières yi frontières yi li la tàqale kee ngeen bokk benn néeg fanaan ci benn la nga woor mu ne moom du woor kooku li leen différé seen frontière yi seen bopp la nekk waaw ah, seen frontières yéen ñaar li leen tàqale seen biir bopp yi la nekk waaw loolu nag dara mënu ko dindi lu may dellusiwaat ci yàlla tawxiid waaw bokkaat benn jëlukaay bu ñuy jële bokkat benn royukaay bu ñuy roy jëlukaay bi suñu borom la royukaay bi yonente bi alayhi salaatu bu ñu ko bokkale waatoon rek frontières yooyu day daal di dañ borom bi ne innamal muminuuna ixwatun ñun ñëpp koy jàng fa aslixoo bayna axawaykum wattaqullaha laallakum turhamun mais bi mu ne jullit ñi ay bokk lañu maa leen defi bokk bokk googu dafa wax ne mënu leen ko am appareil la boo xam ne pièce détachée amul kon nag entretien bi mooy fexe leen bu mu paam waaw de bokkoog l'islam nee na nee bi amul law anfaqta maa fil ardi jami'an maa allafta bayna qulubihim nee na mboolem li ci kaw suuf boo ko dépensé mënoo boole ñaari xoli jul walakin allaha allafa baynahum nee na man yàlla maa ko def li ma leen sax nag mooy bu leen ko yàq moo tax aay bi yim ci teg yëpp yi ko yàq la lim daa tàmbalee lim nag li koy yàq ne yaa ayyuha llaziina aamanu laa yasxar xawmun min xawmin déggal xeebante waaw di wax nga ne kooku faalewu ma ko man bokkuñu fii maa ko ëpp xam-xam wala barab sangam la juddoo yaa xam loo ko mën a xeebe yaa nga yàq bokk bi waaw koo xeeb rek ne wala too laa yasxar xawmun min xawmin ndax kooku ngay xeeb kat asa an yakoonoo xayran minhum wala nisaun min nisain asa an yakunna xayran minhunna wala talmisu anfusakum gis nga wala rek lay wax ne wala tanabasoo bil alqab bisa lismul fusuqu ba'da iman wa man lam yatub fa ulaika humu zalimun mu ne bu leen di ay bënante jël nit ci ay si parce que damaa dem il faut mu am i rëq-rëq yu muy def nga jël ci nag ay tur yoo ko wutal waaw au lieu nga suturaal ko sikkam ya mu am mais nga di ko ko tudde di ko ko adressé def katu nangam bi di ko wutal ay dàkkantal wala lu mu daan def loo xam ne bana ko yow nga di ko continuer di ko ko wooye moom de wala tanabazu bi alqab bii sa lismul fusuuqu ba'da al iman turu kàccoor bu ko waaji amoon waaye waaja tuub ne bëggam yàlla léegi nam meloon démb bëgg ko kenn wooye kenn ku ne am nga démb joo xam ne bëggoo ko la koy nettali waaw kon nag dañ koy suturaal mu del si waat ne ijtaniboo kasiran min allah njort lu ñaaw itam bokk na ci li yàq bopp inna ba'da zanni is wala tajassasu gis nga ko bu leen di yëddoonte di espionné wu sa moroom di ko jéem a déglu di ko enregistré di ko photo te yëgu ko loolu da yàqu bokk wala yaxtab baadukum baadan bu leen jëwante jëwante bokk na ci li gën a bari yàq bokk gi nag parce que looy xas ci nit rek bu fa nekkul nga koy def toog ak keneen di ko wax diw di ko wax si kus keneen te loo xam ci nit ba di ko wax li nga xam ci sa bopp ëpp te ngaa def sa bopp sujet bi ne kaay li ma waxtaane leen sa kaay ma jëw sa bopp waaw ma wax leen sa loo xam ci nit rek lu ci gën a bari loo foog la mais li nga am xam ci sa bopp moom yaqin la sa bopp moom li nga ci xam moom yaqin la moom ndax 24 sur 24 yaa ngi gis sa bopp foo ne xam nga ko ñi ci des nag li nga leen di gis bariwut lu ci bari looy wax ci ñoom da nga koo foog kon nag boo dee xëy di wax ci nit ñi ba ngoon te doo tudd sa bopp ni nga suturaale sa bopp ànd ak li nga koy xam waaye kenn koo suturaale sa mbokki jullit yi ci des su ko defee nga mucc moo tax borom bi ne wala yaxtab ba'dukum ba'da kon bu ñu bàyyee xeebante bàyyi ayibalante bàyyi ñaaw njort bàyyi yëddoonte bàyyi jëwante mbokkoo gi dafay daal di des waaye yii nag luñ ci def nag mbokkoo gi day sikk moo tax borom bi tabaraka wa taala eh, tere bokk na ci tawhid li muy andi nag arraxa wan numu wal iqtisaad yi maanaam koom-koom xam nga gouvernement yépp seen problème mooy satisfaire demande sociale ni ñu koy waxee li xeet bi soxlawoo ñu fexe ba satisfaire leen ci waaye ñoom nag fi ñu fausé xam nga suñu gouvernement yi su ak suñu réew yi liy tax seen mbir jafe mooy dañoo am élément yoo xam ne dañ koo sóoraale wu ci suñu biir parce que fii dafa am réalité yoo xam ne nit ñi dañoo gëm diine dañ cee yomb a nax ci diine te boo gisee Karl Marx doon wax naan diine pion de peuple la diine ju fausé la doon wax diine ju fausé moom loolu moo am na ci mais diine ju vrai moom day defal peuple mais su fausé nag mënees na cee sànq nit ñi moo raw parce que lu ne da koy def nit ki détourné ko ci turu diine détourné ko ci boo tey suñ seetee suñ réew mi fi ne li ñuy ñàkk ci économie ci turu diine lu ñu adressé turu diine ay feet yu dul jeex ay xew-xew ñu cay jeexal alal te dara wéru ca ci lislaam nag mais nit ñi gëm nañ ko defee nañ nag jaamu yàlla la luye ay oto luye ay saxaar dépensé ay millions ay milliards lay doon par at te loolu gouvernement ñemewu caa wax nit ku diine rek ca sañ a wax ne lii yàlla moo ko tere mais gouvernement bu ciy wax di am problème gouvernement ñemewu ko dénoncé neexul leen ko dénoncé ñemewuñ ko da ngay dégg ñu naan feet yu bari yi feet yu bari yi mais ñemewuñ ñemewuñ ci tere genn feet ñemewuñ ci tere genn feet ñemewuñ ko ci tere waaw kooku nag ka mën a leeral bopp nit ñi bañ bàyyi feet ya kooku boo nee du facteur de développement du ma ko boolee ci sama projet li muy jàng dóorul lu war a mën a jëriñ réew mi kon yow sa xamoo fa mu jëm parce que ñoom boole wuñu ci ñiy jàng diine jàppe wuñu leen ci ñi nga xam ne dañ leen a war a dugal ci biir seen réew ndax dañoo jàpp li ñuy jàng du facteur boo xam ne buy yóbbu réew mi fenn la te kiy jàng alxuraan jàng ki gëm diine te boppam leeru ci bañ di ko nax ci turu diine mu mën a liggéey million ab jibar ñëw yóbbu ko jox ko ak xaawa ko fas rek yóbbu million mais kooku kooku dellu gannaaw tàmbali waat sero ki mën a leeral boppam ba mu xam ne lii mu ko indi béjjën bi mu ko fi bàyyi sero la ba mu ko laajee million ba mu bañ kooku nga di bokkul ci ñiy développé nii mm. ah ah suñ ko xamoon dañuy embauché ay waaraatekat uh-huh. dañuy di embauché biir seen waaraatekat day am ci biir si bi ñuy dem di yee bopp yi nit ñu ubbi seen bopp yi ku leen bëgg a tey jibar ñu bañ ku leen bëgg a ndax di leen dig àllaaxira yoo xam ne xamagoo loo fa am ñu bañ ku woote feet yoo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale wu ko ñu bañ ñëpp dem liggéey su ko defee réew mi développé oh, ciy dépensé ci ay mbir yoo xam ne kenn xamul fu mu jëm ah ndax bu ñàkk a leer ab gouvernement mënu koo leeral ku jàng diine rek moo ko mën a leeral li nag ñi jàng diine boole wuñu leen ci mbir moomu plan redressement économique bu ñu mën a tëral itam day échoué waaw ndax mën nañoo liggéey ba alal am mais day demaat ci caaxaan waaw Sénégal kenn jàppale na liggéey mais li ñu yàq bari dañ koy yàqaat ci yu bari da ngay dégg benn cérémonie ñu naan la rey dañ fa ñaar fukki nag waaw oto ya dem kenn xamul nu mu toll bis yañ bàyyi ña waroon a liggéey liggéey kenn xamul nu mu boo defoon bilan ba rek la ca génn ci xaalis kenn xamul lu mu toll te bis boobu fa mu tolloon mi ngi répété nag mais loolu loolu ku ko mën a dindi ndax mën nañoo wote ci assemblée benn benn benn loi bu ko tere bu ñu koy def soulèvement <laughs> daal daal di am mais kii wax ci diine nag mën naa leeral ay bopp ba nit ñi débranché wu dànk nag di bàyyi dànk dànk di bàyyi ba mu leer ci seen bopp rawatina kooku nag bu fekkoon te ne dañ koo dimbali jox ko ay moyens dañ ko dimbali jox ko ay moyens waaye kon loolu bokk na ci liy tax naataange ci suñu réew yi jafe bu doon ci réew yi nga xam ne ay ate lañu moom dañoo gëmul dara ci diine parce que ñaari yëf rek la suñu borom ne moom lay defal leen am réew naataange benn nee na nga weddi lépp falamma nasu ma sukkiro bihi fataxna alayhim abwaaba kulli shay'in mooy li dal Europe dañoo weddi li yàlla wax lépp yàlla nee na ma ubbil leen lépp waaw waaw ñaar yooyu am gannaaw fii nag weddeeguñu lépp la beneen bi moo ci ne walaw anna ahlal qura amanu wattaqaw ah. moom duma leen ubbil lépp waaye la fataxnaa alayhim barakaat min as-samaa'i wal ard parce que lépp moom musiba la mm-hmm. nga fi mu ne alal am na fa mais jàmm amu fa mm-hmm. jàmm amu fa lu nekk mu am musiba ju ne ma nga fay dégg da ngay dégg ñu ne minute bu nekk daal di am am crime bu am ah njëkk sécurité bu ñàkk a ñàkk a a ñàkk ndax borom yi ne dama leen ubbil bunti lépp mm-hmm. falammaa nasuu maa zukkiruu bihi fataxnaa alayhim abwaaba kulli shay'in hatta isa farihoo bi maa ootoo axasnaahum baxdatan fa isa hum mublisun nee na suñu demee ba bëgg nag ba ne noo demee ne adduna bi nag ma jàppale ko weddi nga laaj Amérique rek yàlla jàpp na am na a man bi maa ootoo demoon nañ ba dañoo jekku ñëpp ku wax ñu dóor la nga tëdd yàlla dóor leen ñoom ñu tëdd fa qutia daabirul xawmi alladina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin kon loolu la tawxid di ju am naa ci komb bu mujj na nag muy nawaaqidu tawxid kooku na mat naa bàyyi xel bu baax xam ngeen ne jaamu yàlla gu nekk dafa am lu koy toj xam ngeen ne ñun bu buñ jàngee njàpp danañ jàng nawaaqidul wudu luy toj njàpp boo mënoon a jàpp rek te xamoo luy toj njàpp sa njàpp mën naa toj ba bi ngay dem di julli ah boo jamee xamee farata njàpp ak sunna yi da ngay dem nag jàpp yiy toj jàpp nawaaxidul wudu ba su njàpp sa tojee nga dem jàppiwaat sooy julli tam da ngay xam muftilaatu salaa day am yu yàq julli sooy koor da ngay xam muftilaatu sawm dafa am yuy dog koor a fi ne bu ne woor daal am na loo xam ne boo ko defoon sa koor day dog soo dee aj da ngay xam mufsidaatul xaj maanaam jaamu yàlla bu nekk dafa am lu ne ca wet ga lu koy yàq léegi nag imaan itam nag noonu la amee nawaaxidul imaan yàlla yàlla fi yàggal la jërëjëf amin ñu bari tey boo leen laajoon tey na waa xidul wuda yuy toj jàpp ñu limal la ko boo leen laajoon luy toj lu yàq julli ñu limal la ko boo leen laajoon luy dagg koor ñu limal la ko waaye boo leen laajoon luy toj ngëm yàlla dañ daal ah ngëm yàlla day toj day toj de la ñuy laaj ngëm yàlla day toj de te nag ngëm yàlla tojam dafa gën a dafa garaaw ndax julli bu tojee moom bu julli bu yàqoo njàpp ma sax mën naa bañ yàqu mën ngay julli julli gi yàqu mais njàpp mu yàqu da ngay la rek moom du ko yóbbaale bu yàqoon julli gën a julli woon ci suba yi du ko yóbbaale maanaam sa tisbaar yi léegi bu yàqoon duñu la sa julli ga woon ci suba yàqu déedéet koor boo doon woor tey koor gi dog koor gee dog mais julli yi nga julli ci bëccëgu koor gi yàquwuñ ñoom seen yoon nekku ci njàpp yi seen yoon nekku ci amma iman nag moom bu tojee wala yaa subila waxuma la julli yi nga julli ci bis bi wala koor yi mais ba nga juddoo ba léegi julli goo mës a julli wala koor goo mës a woor wala aj goo mës a aj am ndàngam toj wa man yakfur bil iman faqad xabita amalu wa huwa fil axirati min al xasirin waaw nee na iman su tojee moom bombard dina lépp yóbbaale moo tax nag kon jar naa xam jar xam moom bu yàqoo moom day yóbbaale fa nekkoon lépp walaw asrako yonent yi bi leen suñu borom tàggee ba pare ne ñii ñoo baax dafa des dessiné walaw asrako ay bu ñu bokkaale woon la xabita anhum ma kaanu yaamalu mboolem lu ñu jëfoon ma annulé ko nga ne ah loolu de xanaa bi moom bokku ci mu ne ko wala xadd oohiya wa ila allatina min qablik la in asrakta moom sa bosu bopp la yow rek a ko moom la yaxbatanna amaluka wala takunanna min alxasirin balillaha fa'bud wa kun min alshakirin waaw kon ku des yonente bi la joxar bi wala qad uhiya ilayka ni ko sax ilaykum ilayka yow rek yaa ko moom bis boo bokkaalee loo fi jëfoon lépp naa ko andi te da nga bokk ci ñu perte li ma la digal balillaaha yàlla képp fa but yàlla yonente bi xasee jàll kon kon keneen ku ci des kenn desut kon moo tax na waaqidul imaan yooyu jar a boroom xam-xam yi topp nañ ko ba génn ci fukk moom la ñuy tudd rek ci lu gaaw bu njëkk bi mooy asirk bokkaale bokkaale moom dafa garaaw bokkaale nag ñu bari dañ koy wax baat bi noonu rek global te ñu xam lu mu demee dëgg dëgg dëgg waaye ni ma la ko misaale woon ci lépp loo xam ne yàlla daf koo moom ne defal leen ma ko yàlla dafa am yu mu soxla ne defal leen ma ko mooy lu aju ci jaamu jaamu itam day ñaar jaamu yi ñuy def ci cër yi ak jaamu yi ñuy def ci xol yi dafa am jaamu yoo xam ne jaamuy xol la lu mel ne alxawf ragal ragal ci xol lay ne al rajaau yaakaar ci xol lay ne alxobb sopp ci xol lay ne ak tawakkul loolu ci xol lay ne yooyu nag ay jaamu yàllay xol la yoo xam ne su fekkee am na keneen koo yaakaar ku dul yàlla sama mbir mi diw yàlla diw laa ci yaakaar yàlla rek nga ci yaakaar fa man kaana yarju la wax liqaa rabbi fal yaamal amalan saalihan waxaa ne ulaika yarjuuna rahmatallah yarjuuna rahmatallah parce que doomu aadama lu muy wut mi ngi koy wut bi rahmatillahi wa bi fadli qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dalika fal yafraxu huwa xayrun mimma yajmaun gis nga aaya yu bari da ngay gis bu naan walaw laa fadlullahi alaykum wa rahmatuhu daan cey teg lam cey teg maa saka minkum min ahadin abadan walakin allah yusakki man yasa walaw laa fadlullahi aleykum wa rahmatuhu la hammat taifatun minhum an yudilluuk wa maa yudilluuna illa anfusahum kon suñu boroom lu muy may jaam bi mi ko koy may ci yërmandeem ak ngëneelu kon looy yaakaar yàlla nga ci war a yaakaar bu dee ragal mu ne falaa taqaafuuhum wa xaafuuni in kuntum muminin ragal googu nag dàqonti wut ak def sabab fi nga koy xamee mooy ci xissa Seydina Moussa Seydina Moussa ba ko Firawna dëlmal see xam nga fii àdduna la nag da ngay jëfandikoo ay sa borom doole ju lay song si te amoo doole joo amee man koo jàkkaarloog moom defal li nga man mooy daw dawal moom la fa fekk borom bi ne ko anisri bi ibadi laylan rañaanal ak sama jaam ñi guddi innakum muttabaun dañ leen nar a topp waaw loola ñuy def du ragal de mais sabablu la sabab lu la ndax doo toogi rek nag ba borom doole ju la ëpp doole foofu waa jëloo ko ne xës ci sa kaw loolu daanaka xaru la xaru la bu gaynde doon ñëw kay dañ daw waaw gannaaw amuñu luñ jàkkaarloog moom amma soo demee ba mu tas la ci am mii nag ba mooy ba firaaw na demee nag ba tas leen ca géej ga nag léegi géej gaa ngi nii firaaw naa ngi seen gannaaw nag gis nga gaa yi nga xam ne nag egguñu fa Moussa yegg dañ ne ko Moussa inna la mudrakoon bàyyi boobu yëkkate suñuy loxo joxe suñu bopp jébbal firaaw na suñu bopp gañe nañ Moussa la noonu kalla Moussa leen kalla xalaatu ma ko ñu ne ko foo teg mu ne inna ma'iya rabbi sayahdi déggal yaqin inna ma'iya rabbi sayahdi yàllaa ngi ànd ak man te faww dana ma wax fu may jaar gis nga sala ci doxale xamagul xamagul ndax ba tey sabab yi des na ndax comme géej la jëm li feeg sa géej diggante géej mi ngi des mètre rek ba tey dese nga man loo mën a dox soo demee ne ba suubu géej des ci nag li nga mënoon jeex na xam nga nun nag dañuy gaaw a wax te fekk des na waaw li nga ba doppi nga ne saye mënatuma dara te li nga mën des yàlla dalay seetaan ne la bala maa ñëw defal li ma la jox lépp laa yukallifu llahu nafsan illa ma ataaha li feeg ma ataaha mi ngi des rek yàlla du ñëwagul waaw waaw saako ceeb bi des na juróomi kilo nga naan ko xiif dana mara yàlla ñëwal mën na dem lekkal juróomi kilo yi ba mu jeex waaw nga jeex rek nga ne des na liibar mu ne la bi jeex waaw waaw bu jeexee takk rek nag ma ñëw waaw waaye bu desee tuuti rek nga bën fu ma jëm man xiif dana mara te dese naa fukki kilo ah waaw yow sëñ bi ko da nga yaakaaru yàlla da nga yaakaaru yàlla moo tax Moussa itam bi mu jubee géej gi mu des meetar it ba tey ndimbali du ñëwagul ba mu demee nag ba suubu géej gi nag lan nit ne ko ad la id ànd bi attaque baax foqal naa rek bi attaque al bahr borom buñ ko ko waxoon te egseegul ci géej gi fu mu koy dóor. fawal sa yéen yu dóor ci géej gi bu fekkoon ne daanu na géej gi fukki mètre. bañ ko ànd rek bi attaque al bahr bu ko dóoree ci suuf ñu ne ko baxra lañ la wax ah. <laughs> ba tax nga egsi ci baxra kon il faut nga egsi ci géej gi waaye gis nga ba pexee jeexee takk ba mu sóobu ci géej gi rek ndimbalul yàlla ñëw. yaqin boobu nag noonu la fi nekk ba léegi yàlla xissa yooyu ba mu ci noppi rek danaa la inna kazalika najisil muhsinin war na ne ko jaar fañ jaaroon ba wa ma kaana ataau rabbika mahsura nee na li may maye jeexut de yaqin bi moo fi nekkul rek yaqin bi mais xoolee yaqin boobu Moussa am bul bul ñu dog bàyyi ñu eggale rek bul bul ñu dog bàyyi ñu eggale rek waaw dañu eggale insha allah borom bi ne inna allaha la yaxfiru an yusraka bih wa yaxfiru ma duna dalika liman yasha bokkaale dafa garaaw nee na lu dul bokkaale ku ko faatu boo dajeeg moom bu ko soobee mën na laa jéggal waaye bokkaale moom ku dajeeg moom faatuwaale ko dajeeg moom nee na du ko jéggal innahu man yusrik billah faqad harrama allahu alayhi aljanna wa mawaahu naar ku bokkaale ak yàlla ba dajeeg moom nee na àjjana dafay araam ci moom àjjana te yàlla nag lu mu araamal du ko dagana la laa yubaddalul xawlu ladayya nee na samay wax kenn du ko sensé laa mu aqiba li xukmi atte atte bi yàlla amul d'appel cour d'appel amul ci yàlla waaw buñ attee rek jeex na laa mu aqiba li xukmi ate borom nga daal damay ñaan d'appel déedéet koo koy ñaan koo koy ñaan ñaareel ba wut ay diggale yoo doxale sa digganteeg sa boroom yoo xam ne li nga waroon a ñaan yàlla waroon koo xeetli ko ci ñoom ci ñoom nga koy jaarale loolu ci na xaqidul iman la bokk parce que doomu aadama digganteem ak boromam ñaari vaa la dafa jar a xàmmee bu la yàlla soxlaa bu la yàlla soxlaa mane bëgg laa sant bëgg laa tere kooku moom day am fu mu ko jaarale ci nit la ko jaarale ci yonent bi borom xam bi ku fi toog dina dama bëgg a gént ba yàlla dama jullil wala ma ko da ngay dem jàngi xam la la yàlla digal waaw kenn ku ne sa lettre lettre yàlla yi da koo posté lettre yi jëm ci nun da koo posté bi la ko sa lettre ñu liiral la ko ne la yàlla lii la la sant lii la la tere liiral la sa lettre xam moom dafa yàkkamtiwul ndax yàlla fi nga juddoo nga gëm ko ak nga bàyyi ba ak juróom-ñaari fukki at doo koo gëm ñoo yem ci moom waaw benn bis dong nga jaamu ko doonte jund nga juróom-ñaari fukki at mosoo ko jaamu tuub benn bis jaamu ko mu tàbbal laa ci waaw ndax dara moom yoonam nekku ci moom jaamu yàlla gi maa yafalullaahu bi azabikum nee na lu may doyee mbugal le in sakartum wa amantum maa yafalullaahu bi azabikum nee na mbugal leen lu ma koy doyee yu ma leen ne il faut ma mbugal leen déedéet ku gëm rek ma bàyyi la du ma mën a mbugal moo tax lu waa yàgg-yàgg ci mooy bu tuubee borom bi ko wa taala jéggal moo tax waa ji ñu nekk li ne dafa rey juróom-ñeent fukki bakkan ak juróom-ñeent ne da ngeen ma bu dama bëgg ngeen tegtal ma ku ëpp xam-xam koo xam ne damay dem laaj ko ba xam ndax mën na ma tuubam de mu dem ci benn labbe boo xam ne moom du borom bariwul xam-xam mais jaamu daal lay def jaamu yàlla lay def abid la ba mu ko waxee loolu moom dafa jël kaaraga mu muur ci bët ya moom ne ko wala yaasu billah yow koy alku nga yow koy safara nga jëm waaja daal di koy dóor jaasif rek rek ne ko kon ma bottali bi ci yow hmm. daal di nag daal di waraat ni waa teg fu ngeen ma mën a tegtal koo xam ne borom xam-xam la ndax su ma fa demee dinaa mën a tuub ñu ne ko diw sàngam daal moom borom xam-xam la soo fa demoon daal mu ñëw ne ko daal man damaa rëy téeméeri ndax mën na maa yàlla mën na ma jéggalati daal ah, lan moo dox sa diggante ak yërmande yàlla wa man yaqanatu min rahmat rabbihi illa daamu kenn du naagu ci yërmande yàlla dul ko boo tuubee tuub gu sell kay yàlla jéggal mu ne kon tuub naa mu ne nag léegi suuf soosee nga doon defee lu da nga fay jóge ndax suuf sa sa lu bon la taxoon ak moom ba boo fa nekkee doo mën a bàyyi lu bon tuub nga mais soo fa jógewul da nga cay delloo kon jógee fa nga dem barab sangam sa seneen suuf soo xam ne moom mosu faa dem ñu ne bi muy dem ba ci diggante bi bay di bëgg a génn suuf su bon si dugg ca suuf su baax sa suuf si mu doon defee lu bon far faatu malaaka yi yéen may di ne dareet malaaka yi mbugal yi ne ñoom ñoom itam kenn ku nekk ne si ma maa koy jël si waaw malaaka yi mbugal yi ne kii mës a def dara lu rey na ay bakkan malaaka yéen may di ne dafa tuub suñu borom tabaraka wa taala wax yu ne danañ natt leen soof si mu jógee ak fu mu jëm fu mu ci gën a jege su fekkee fi mu doon defee lu bon la gën a jege yéen malaaka yi mbugal yi yóbbu fi mu jëm la gën a jege nga xam ne tuub la fa doon wuti yéen malaaka yi yéen mën a yóbbu leen nee nañ ñu natt ko mu tolloo xasab xasab wax nañ ne sax daa yemoon ci waaye suñu borom ko pousse tuuti rek ci yéen dem ba ñu la nattee mu tolloo xasab mu gën koo jege suuf si nga xam ne fa la fa la jëm bu daal di tax xool yéen ma de suñu borom tabaaraka wa taala ni mu yaatoo moo tax kon ñaari baa yooyu moom la nit ñi xam léegi de yow boo soxlaa yàlla suñu borom ne mu amul intermédiaire yow bu ma la soxlaa am na intermédiaire loolu la ñuy tuddee sëriñ mooy ku lay wan diine sëriñ nag dañoo soppi moo bi sëriñ lim daan tekki mooy ku lay jàngal di la wan diine wolof yi wax nañ ne mi ngi jóge ci sayekatu njariñ baatu sëriñ ñu ne foofu lañ ko abressé sayekatu njariñ moom lañ abressé ba tudde ko sëriñ mu ko sayakatu njariñ mooy sëriñ kon ku sayeetul kenn njariñ ah ancien sëriñ nga wala bësoo ko doon sax far parce que fii ci Sénégal ancien lu ne nangu dañ ko ba mu des ancien sëriñ docteur bi su fa detul ña ko doon def defoon docteur dañuy wuti beneen docteur ne sama docteur bi daa retraité am naa beneen docteur sa maçon bi bu tabaxatul nga wut beneen maçon sa tailleur bi bu ñëwatul nga wut beneen waaye sa sëriñ bi bu jàngaleetul nga ne ba tey mooy sama sëriñ te moom jàngaleetul